وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصف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 ci li nga xam ne moom lañuy ñu soq moom la ñu seq bokk ko muy yoon wi nga xam ne ci lañuy dox di yoon yàlla ñu tolloon nag ci di wax yu bare bari yoo xam ni sëriñ bi nam ko doon jàngale ak na mu ko doon waxee ak nun tey niñ koy dunde dafa wuute waxoon nañ ci lu mel ne wut ab sëriñ masalan ni ñu ko sëriñ bi jàngale ak niñ koy defee tey waxoon nañ itam ci lu aju ci xam-xam niñ ko déggee tey ak niñ ciy doxe ak lañ ci sëñ bi digaloon wax nañu itam ci lu aju ci jaamu yàlla sunu digganteeg moom ak li ci sëñ bi digle woon tey nag loolu rek lañuy ñuy mottali ñëw wax ci beneen poñ boo xam ne moom it sax xëy na bu dee lu mel ne murid yi ci lañ gën a góorgóorlu <coughs> muy liggéey liggéey xam ngeen ni lu tua touba fonkon lum lum farata lon itam la da ko farat dafa wax ne wa talabul halal fardun yantami li kulli muslimin bi xëyri bi xëyri wahami moy sak lu lew farata la farata la ci bepp julit waxuma nak kon poñ bobu bu am solo lo don ci ci dunduk murit deug la yang ci waaye bu ñu seetloo moom it bari na nun ci doxee noo xam ne wuute naag njubug sëñ bi sëñ boo seetloo baat bi li mu wax bul xalaal mooy sàkku lu lew tey nag <clears throat> da seet lu bare bari ñoo xam ne liggéey yi ñuy liggéeyee duñ ca seet lew na walla lewut lislaam gërëm na ko wala gërëmu ko lañuy seet rek mooy ndax am na xaalis wala amul xaalis ba tax na ñi ëpp ci nun tey liggéeyee ñi def riba da cee dugg wala ñu jëflanteeg riba te loolu sikk la ci ab murit murit du jëfandikoo riba du jëfandikoo lenn lu xaraam waxoon nañ ko ci li ci li weesu kon Sëñ Tuubaa lim nu digal dafa dafa dafa dafa leer mooy mooy liggéey boo xam ni nee na farata la waaye nag na nekk ci kaw ngay sàkk lu lew wa talabul xalaali loolu sax da cee da koo digle ay yoon wax na ne wajtahidu fi talabil xalaali na ngeen ci farlu kon da koo digle ñu bari ci noonu nag tey yeneen yoon lu mel ne tey maanaam am na ñenn ci nun ñoo xam ni tey boo seetloo fa suñu yéene liggéey seen yitte mooy aj seen bopp ci kaw ñeneen nit ñu leen di yóbbaale ci lépp loolu nag ñenn ñi sax dañ ko jàpp ne ak wakkiirlu la ak nekk ci danga am lu baax bëtaloo liggéey fekk Sëñ Tuubaa itam daan wax ne fatar fatarku kasbin liddi'a tawakkuli maal tifatin, fi'lu ghumrin yan injali dafa bayi ne bàyyi liggéey ba noppi nag da nga am ne da ngay wakiirlu ci yàlla subhanahu wa taala te sa xel ak sa xol nekk ci li nekk ci loxi nit ñi waxtu na ngay xaar ku la indil dara ak ku la jox dara ak ku la dimbali ku la joxoon nga mere ko jàpp na daa gëmut sëñ bi wala daa fonkut sëñ bi wala taalibeem amut solo ngir lim la joxut yow doxin woowu nag sëñ bi di wax ne loolu fin lu xumrin maanaam ko xel ma neexut moo koy def ku desee di mbaa koo xam ne xel mi neexut mu rek mooy def loolu ndax wakkiirlu ak fàggalu deew maanaam jotewuñ dara ñaar ñaar yu ànd lañ yu dëppoo lañ yu méngoo lañ moom la suñu wax ne waxlam bi anal kasba laa yunaafi tawakkulan laa takku daa itlaafi maanaam fàggulu lew moog wëkkirlu ci yàlla benn lañ ndax fi ne boo demee ca marché ba di jaay wala ngay def métier mu mën di doon fi mu ne métier moomu du cee génn mooy ci la wërsëg maanaam ci la wërsëg di jóge wërsëg yàllaa ko yor waaye nag bu mii nii wala commerce bii ngay def nii jumtukaay la ci maanaam wërsëg dikkal la ndax lépp loo def ba am dara rek am na ko def lu gën a néew loolu am lu ko ëpp am na koo xam ni def na lu ëpp li nga def te amul li nga am kon wërsëg yi yàlla moo koy séddale waaye da ko wutal nag ay sabab mooy dafa am fu muy jaar fi muy jaar mooy yàlla dafa bëgg nga yëngatu boo yëngatoo nag mu wërsëgal la jaarale ko ci biir yëngatu boobu kon wakkiirlu ak liggéey ñaar yooyu benn lañ duñ tàqali ko mukk <clears throat> bu ko dee kon li gën a mat li nga xam ne war nañ ko moytu ñun ñëpp mooy liggéey yi ñuy def nii ak lu mën a xew nag ñu fexe ba la ñuy liggéey lew loolu lépp danañ ci ñëw ci gën a yaatal waaye lekk loo xam ne lewut loolu Sëñ Tuubaa da ko da ko da ko daan moytuloo mbooleem ku mas a nekkal ba tax na boo gisee ñi mu doon digal ay liggéey ku mel ne borom Daaru Muxti mën na ci jël misaal ليجي بيمكن دجرن ما يبي وحكنا كوا في الزرع روح الخلق إن كنت عاقلا وفيه عماد الدين للحر والعبد ما يبي لكو دجل أي بيتي يبقى أي يعني بيت هنجا وعندك وحنا كنا في خبر فانكو ما يبي تخم نتلا روحك من دفينة ما يبي مملة نسيب دونه أدنى بلي مياتو ياتو خير لك يلي بباري باري فينا جنود لنيو باي xana la koy rax moy jur gi ak seeni soow ak seen yap yi ñu yalla xewal te mbay yow da nga wut sa jiw mu lew ci yow nga dem duggal ko ci suuf si nes mu génne lolu xam nga dara ci jëflante bo xam day indi sik du jam am mu gën a mucc lor gëna a jëflante boo riba da ci tabbi motax señ bi digalon koko waye waaye yeneen xeeti liggéey yi dagan yépp señ bi diglé nako ko sëñ Tuubaa moom la mu doon la mu doon moytuloo nit ñi rek mooy lekk lu lu lewut te xam ngeen ne jamono ji ñu toll riba dafa yomb riba dafa yomb ci misaal yow bari na ñoo xam ne fi ne bërëb yi ñuy liggéeyee bërëb yi ñuy liggéeye boo leen seetloo te tey dañ leen wax ne yow huit de temps nga war a liggéey yow nga fexe ba li ngay liggéey par bés du mat quatre de temps nekk ci sa bopp mbaa nga déclaré ay ngant wala ay feebar wala ay yoo xam ni dangay fexe rek bu bañ nekk ci liggéey bi loolu kon rawatina ñi nga xam ne ñooy liggéey ak loolu da leen dal lu bare bare bare yal na yàlla musal ci lu mel kon loolu it mooy tax yow li nga xam ne daa am lu ñu war a daa am lay jox yow nga war la am loo war a def ñoom li ñu lay jox ñu ngi la koy jox waaye yow li nga war a def defoo ko loolu liggéey la boo xam ni jëfalante la boo xam ni du lu dagan ab jullit bu seqee ab liggéey keneen la ko ca war da ko war a def wër wër caa manqué dara mooy tax lañ lay jox mën a lew ci yow nekk noonu gis nga ñoo xam ni masalan <clears throat> ni ko Sëñ Tuubaa waxee diine lañ defub liggéey nga xam ne dañuy waxtaan masalan ci Sëñ Tuubaa di ca am dara wala ñuy waxtaan ci diine ji di ca am dara waaye day mujj sëñ bi dootu leen ñor diine ji dootu leen ñor lañuy am rek moo leen di ñor ñuy seet nan la ñuy fexe ba nit ñi jox leen dara loolu mooy indi ñuy ñuy wax ay wax yoo xam ne nit ñi rek lañuy dàkk seen bànneex loolu sëñ Tuubaa da ko daa aaye yooyu yëpp xeeti jëflante yooyu yëpp dana wax ne wa aklu maalin naasi duuna tiibi nafsin yu addi nafsa li taadibi kal akli bi diini wa bi shafaa wa mithluha taaxiru fi'li taa wax na ne nit ki nga feex ba lekk alalam ci nax ko rek nga xam ne moom da ko nax rek loolu ku ne xam na ne ci mbugal rek la la jëme yu addi nafsa li bi da di koy misaal ne lekk alal ci lu teeg bakkanu ka ngay lekk alalam da ko misaal ci lekk ci dine ak lekk ci shafaa loolu nag lu yaatu la Sëñ Tuubaa dinaa misaal Cheikh Ahmad Wuldul Hasan dafa wax ci téere bi mu tudde fatxu samin alim min ku suufaati cheikh al xadim wax ne sëñ bi dafa wax ne adduna da ko doon dàq nee na may daw di daw ba mujj ñu ne ma taxawal ma taxaw àdduna ñëw wër ma bi ma wëree nag képp koo xam ne bëgg na agsi fi man dangay ngay jéggi adduna moomu doog agsi fi man loolu ma sëñ Tuubaa adduna ak alali àdduna ak daraje adduna da ko wër ci wet gu ne sunu class gi ñu bare bare nak dañuy teub rek gis alal joju ak dara joju mu fess seen bët ñu yam ci lool nga xam duñ dem ci señ tuba mukk duñu ag ci mom lool mën naa dal mboolem ku yëngu ci yoon wi mo xam señ la wala mu koy waxtaan ci yoon wi wala muy koy jàng sax xasiree señ bi wala muy def lenn loo xam lu aj ci yoon wi la fi ne man ngaa jóg rek nit ñi bëgg la ngir señ tuba di la jox seen alal ngir señ tuba bu la loolu doyee nak day mujj lool rek mooy doon sa yitte mooy alal jooju ak dara ji jooju nga xam ne yooyu Sëñ Tuubaa dootul day mujj dootul la ñor loolu loolu nag ba tey yaa ngi ci ñàkk boobu nga xam ne moo wër sëñ bi muy àdduna ji bala ngaa mën a àgg ci Sëñ Tuubaa da nga koy jéggi boo ko jéggee nag àdduna day génn sa xol mu dëgg dëgg day njëkk a génne àdduna ci xolam kon xeeti yooyu nga xam ne ay métier la léegi te dara dëggu na ci danañ ci ñëwaat bu gën a yaatu lu mat a moytu la ci bépp murit Sëñ Tuubaa daa wax ne nit ki bu mu dugal dara ci xolam الحرام سنتو أن لا تدخل الحرام في البطن ولا ما فيه شبهة لب لولنت وخم الحرام وهاي لولنت ترك بقول دول سبير نخلين أي جف من بالحرام عبد الله فلا يكون إلا نادما من سفرة أما فلان فهو أن لا ينفه العلم ولا العبادة بالأكل للحرام عند سادة موش فكان دعني جف نقول الحرام منو جف لو يالنونغو sa xam-xam bi nga amit bu fekkee da ngay jëfandikoo lu xaram du la jëriñ dara fa yàlla doo ñaanit lu yàlla nangu ki nga xam ne li muy lekk dëgg lewut du ñaan lu yàlla nangu du jëf lu yàlla nangu ak lu coowam bari bari lu xam xam lu lum siiw siiw ak luñ ko dégg dégg dégg moo tax lu lew ab poñ la wala nga ne farata la sax ci yoonu yàlla képp koo xam ne bëgg ngaa dox di murid faw nga yittewoo lekk lu yow lekk lu law nag ku ko bëgg faw nga doylu benn ñi meeg ñàkk itam te le moo amit mu mu doyloo ko xam ngeen ne te itam bañ bañ xeeb métier am na ñoo xam ne ruus nañoo yenn liggéey yu bare bare foofu sax maa ngi jëm ci masan sama kalaas gi nga xam ne dañ leen di tudd di tudd ak cëriñ ngir liñ askanoo ci sëñ bi wala ku aju ci sëñ bi nga xam ne ñoom far faruñu liggéey amuñu benn métier déwén ci yëpp ruus nañ ko def loolu gis naa ne sikk la lu bare bari loo xam ne yàq na lu bare bari ndax tey nit ñi nga xam ne ñoo lay ñooy ànd ak ngir yàlla ak jëmmi Sëñ Tuubaa day mujj dootu leen mën a te wax wax doo mën a waxte dëgg ndax sa dund gépp da ko aj ci ñoom amoo métier amoo lenn fenn fu la alal di ko fu may ci taalibe yi nga xam ne ñoom nga àndal dana mujj yow nooy fexe ba alal jooju génn rek mooy doon sa yitte waaye doo leen waxati dëgg doo leen tegtal yoonu yàlla doo leen tegtal lu leen di jariñ loolu nag sikk su rëy indi na ko ci sunu yoon wi nu nekk moo tax mécc jombut kenn wut am mécc di ca xëy di ca gont di ca am lu lew di ko dunde te yàlla tax jombut kenn yonent bi alayhi salaatu dalaa wax ne maa akala ahadun taaman xayran min an yaakula min amali yadihi nit ki lekkut lekk gu gën gim liggéey ci loxoom mu lew ko gis ngeen yonente yi alayhimu salaam fi mu ne yàlla da wax ne yaa ayyuha rusulu kuloo min at-tayyibaati wa amalu saalihan wa amalu saalihan mooy jëf ju baax bari ngeen ko def li ngeen li ko jëkk mooy kuloo min at-tayyibaat mooy lekk lu lew lekk lu lew lu dagan moo moom rek ngay mën a def di mën a jëf-jëf ju baax nit ki li muy lekk day day jeexital fi ne ci ay jëfam ak ci xolam boo dee lekk lu lew lu ak lu baax lu baax rek ngay jëf say cër lu baax rek lay tàmm su fekkee nag li ngay lekk dara dëgganu ci du lu lew mënoo jëf lu baax yonent bi alayhi salaam wax ne waaye ngi nii nekk ci àll bi dëkk ca dëkk yaa bi yaa rabbi dëkk ci jaamu yàlla rek di woo yàlla te fekk moom li muy lekk dafa xaraam lim sol xaraam kooku nee na an naa yustajaabu lahu mooy kan moo koy wuyu yàlla du ko wuyu mukk mooy lu sa jaamu yàlla bari bari bari te nga dëkk ci lekk lu xaram yàlla du du wuyu sa ñaan du ko du la nangu sa ñaan moo tax <clears throat> yonente bi alayhi salaatu wax nañ ne daana wax ne inna min addunubi dunuban laa tukaffiruha salaatu wala sawmu wala alxajj wa yukaffiruha saayu fi talabil maisa am na bàkkaar yoo xam ni lenn dong moo mën a tax yàlla jégal la ko mooy xëy ci wut sàkk lu lew dox ci sàkk lu lew waaye fi ne julli du ko du tax yàlla jégal la ko koor du ko far istighfaar yi sax du ko far li koy far mooy dox ci ak wër ci sàkk lu lew moo tax boo gisee kon ni ma ko waxee léegi am liggéey am liggéey jombut kenn yonente yi alayhi salaam ñoy ñi ñi yàlla gën ci jamm ñi te kenn ku ne ci ñoom boo dafa amoon métier ci misal musa ab Samulawan, la won ndax gis nga ci alxuraan sun borom wax ko wax ne mok sayidina shuaib ba ko bëggee may doom ja da ko wax ne ko ridu an ihdabna tay haatayni ala an tajurani thamaniya hijaj fi natmamta ashran fa min indik gis nga kon kooku euh, ab sàmm la woon da doon sàmm moom Seydina Moussa Seydina Noox mën nañ ne ministère la doon def wala loolu kenn métier am la mooy yat ak defar ay gaal fa awxaynaa ilayhi an isna'il fulka bi naa wa waxinaa loolu suñu borom wax ci alxuraan Seydina Ibrahima mi nga xam ne mooy mooy abul ambiya yaa ngi dégg moom it gis nga ne mook Ismaïl doom yàlla digaloon na leen ñu tabax kaaba gi kon ñoom ay ay ay ay maçon lañu wa id yarfau ibrahimu alqawaida min albeyti wa ismail <coughs> rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim sayidna isa am médecin la woon bu a faj nga xam ne wa ubriul akmaha wa labrasa wa oxyil mawta bi idnillah mooy yàlla ko defal xam-xam boo xam day mën a faj xeeti jàngoro yoo xam ne sax kenn mënu koon a faj ci jamonoom mooy ku tëx ak ku ku amee ndox maanaam feebaru siti euh, ak yu demee noonu Seydina Daawuda ak doomam ja xam nga ne ñooñu ay attekat lañ woon suñu borom wax na ne wa Daawuda wa Suleymaana iz yaxkumaani fil ba tey Seydina <coughs> Daawuda mën ne ab maanaam soldaar la woon gis nga wa qatala Daawuda wax na ne itam fi ne euh, suñu borom wax na itam ne. moom Seydina Daawuda moom la yàlla njëkk maanaam moom mën ne sax kii la woon tëgg daa liggéey ci feer defar ay mbubbi koŋ ñu wax ne wa allamnaahu sanaata labuusin lakum li yuxsinakum min basikum mooy mën na ni kon moom it tëgg la moom it Seydina Daawuda Seydina Yuusufa gis nga moom ci jamono dañ ko dénkoon mbooleem lu aju ci wàllu économie ci buuru Égypte ba wax ne moom sax moo ne ko ijaalni ala xazaayini l ardi inni xafidun alim Seydina Adama wax nañ ne daana bay Seydina Idrissa wax nañ ne daana ñaw sayid yonente yëpp wax na ni kenn ku ne jaar na daanaka ci sàmm na muhammad moom sàmm na def na lu bare bari ci ay xeeti métier commerce na kon li ma bëgg a wax mooy jëmmi am métier moom yonente yi yàlla gën a tànn ñoo ko jëkk te seeto boo seetee seen métier yi nii da gis ne mooy métier yi nit ñi gën a xeeb mooy lu mel a tëgg ak di ràbb ak di yet ak di bay xeeti métier yi nga xam mom nit ñi gëna a ne mom la yoonte yi doon métier kon liggéey du lu jom kenn ak ko mëna doon war nga am métier rawatina kilifa nak mo ci raw kilifa bu amé métier dana tax ñam andal ngir yalla la leen digël lu baax ngir yalla té du sentu ci ñom dara lañ koy jox du def benn jeexit ci digënté ak ñom xam nga ne kilifa ab sëriñ ak ko talibé la dox seen digënté mo irshad mo jubbanti leen ak tektal leen yoonu yalla ak it di leen leeral njubug seen borom ko tabaaraka taala loolee nag bakkan xam ngeen dafa dafa bari ay pexe te bànneex dafa gaaw te am bànneex yu nëbb yoo xam ne nit ki sax du ko du jàpp ne bànneex la te fekk bànneex la yooyee nag boo fexe ba am sa métier bopp dina tax nga libéré wu ci li la nit ñi jox ni ak lu mu bari bari fi ne du jeexital ci yow sa sa sa ak ñoom ak li nga leen war digal ak li nga leen war a kon mën nañoo xaw a gàttal foofu xam naa ne ci émission bi ci topp ci seen émission yi bu ko defee nag doo ko dugg nag ci dëgg-dëgg waxtaan wi bu soobee yàlla kon yii nii ay mbir la yoo xam ne sëñ bi daana ko digle te nun léegi suñ taxawaay am na ci ay sikk yu ci dugg wala nen ñu bari ci nun defuñu ko yooyu lañ tàmbali lii benn poñ la ci incha allah émission yi ci topp danañ continuer ci yeneen poñ yi ci topp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 wa yassir liya amri waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi ni diglu yëpp dinu seetaat noo leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte ci àndaat ak yéen ci seen jataay bii di yoon wi ci muy jataayu juróom benneel bi incha allah nu war cee ñëw nag tey ci beneen mbir moo xam nit lu sëñ bi yittewoo woon la lu sëñ bi fonkoon la te noonu léegi nañ koy dundee itam am sikk loole yu xaw a bari la yu ànd waaye mën nañ mën naa ko tuddee rek ay teggin teggin danay wax lu bari ne mooy ruuxuk ak taalibe yoonu yàlla su doon jëmm jëmm ji nga gis ni muy karkaas bi moy don sharia ju teggu ci alquran ak sunna si yonent sallallahu alaihi wasallam waye ruh gi ci biram nak moy ay teggine secret bi nga xamne nak moy yor jëm ja moy ak bëgg ak bëgg kon ruh gog nga xamne roh ruh ak jëm ji ak taalibe bi bu doon jëmm ruux gi moy ay teggine ruh gog nak señ bi ci la don yar mën na ne mag ñépp di ci soññ ba murit dëgg dëkk foo ko ma sax fekk day am ay teggin teggin yoo xam day feeñ ci waxam feeñ ci jëfam feeñ ci axwaalam yépp ak ci léppam tey jii nag sunu kalaas gi ñu bare bare ci noonu teggin moom dafa réer ci seenug dund seenug dund daanaka ci ay garam place ndax teggin la ci jëkk ci teggin teggin lu bare bari la dañ ci gën a ñëw sax nag ci gën a yaatu bu soob yàlla waaye la ci jëkk ci teggin mooy sàmmoonteeg waxtu ab murit du sànk waxtu Sëñ wax dara wax ne fa saadiqul muridi man yanqalib bi xukmi waqtihi wala yartaqib mooy murit dëgg-dëgg murit saadiq moy ko xam day samonté waxtum yëpp du am benn jëf bu mu war a jëf ci lu baax lu muy xaare ëllëg lépp li mu war a def da koy def ci waxtu wa mu ko war a defee tey nga xam ne ëllëg moom ñëwagut waaye tey lépp lu mu war a def rek da koy def tey du xaare dara ëllëg sëñ Tuubaa dara wax ne waalam bi anna waqta shaxsin min aaz ashyaaihi fa asgilanhu bil aaz xamal ne waxtu nit mooy li gën a foor ci sëg dund moo tax bul ci def mukk lu dul lu am solo lu rëy loo xam dana la jural lu rëy rëy rëy daana wax ne fi ne noo gi ngay nooy nii xamal ne wurus la wu sell maanaam mën na ne alal la joo xam ni xamoo sax njëg gi bul ko def mukk nooyi gi nii ci loo xam ni luy sànq sag dund la wala luy indil jafe-jafe kon foofu la Sëñ Tuubaa nekkoon xam ngeen ne doomu aadama tey nooy sa nooy nooy goo nooy rek yow dem na te doo delsi bu ñu la lewoon tey tey ci misaal junni nooy ngay nooy ci kaw suuf tey diir bi fi ne nii xam nga ci misaal nooy nañ fi lu mat fukk gën jaaneew wala téeméeri nooy kon yow sa say nooy yooyu ci misaal juróom-ñeenti téeméer moo ci des noonu lay doxee nag yow ngay sag dund di dem te doo ko yëg lol nak kuko xam warna baye xel lu bare bare bare bare serigne touba motax gis nga dara fa dara lol da ci la soñe lu bare bare da na wax ne wa arghabu al ashiya'i lil amwat raddun ila ad dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfauhum in qafalu mooy ñi nekk yowmal xiyaam nee lañ gën a bëgg yàlla defal leen ko mooy ñu delloosi leen ci àdduna donte benn saala mooy benn segond ñu delloosi waat leen ko ci ci ci ci ngir ñu jëf man fee jëf loo xam ne dana leen amal njariñ àllag loolu sëñ Tuubaa moo tax mu daa wax ne faxtani man baaqiya umrin qad mada bi xayri taatin walil xayrin hada li def ci sag dund ci loo xam ni li dess sa dund neena na nga fexaba ba profito nga nga mang ko def ko ci lo xamni de nga am ak top yalla la ak lu lay amal njariñ fa fa subhanahu wa taala qabla fawati ndax day raw wala taghful abad anil muraaati li baaxiti li baatinil jasad bul sagan mukk ci di samonté sa bir xam nga am na ñu bari ño xamni seen kaw rek lañu defar fexe ba say mbubb jekk sa yaram jekk sa col jekk nit ñi buñ gisee sa kaw da nga am maanaam rafetlu ko am na ñoo xam loolu leen yitteel am na ñoo xam dañuy bëgg seen yaram lu lu ne lañ ko ci dépensé ngir bëgg yaram wi jekk di lekk-lekk yoo xam ne dañ jàpp ne day defar yaram ak yéen demee waaye Sëñ Tuubaa dara wax ne loolu amul solo wa zayyinil baatina mawdi'a nazar ilaahik mooy sa biir bi nga xam ne moom la yàlla xool mooy sa xol foofu nga war a gën a yittewoo moom nga war a gën a defar kon loolu lenn la ci biir ay teggin murit day sàmmante waxtoom <coughs> murit suñ tubaab daa ne wala takun mu kathiral tifaati foo toog ni da nga yar sa jëmm ba bul bari ab yëngutu ak geestu ak xool loo xam ni amul la njariñ lu nga yër ko loolu suñ tubaab ne ko daa wala takun mu kathiral tifaati min gayri xaajatin ilal jihaati wax na wali tiraaba wa tatawula wa tatawula ila tatalluin ala xafiyin musjala fa innahu alaamata tayshi bada wa xifatal aqli liman taawada yooyu yëpp ay teggin na mooy boo toogee ci bërëb bul def fu ne nga gees fa di wiir wiiri bul nekk di baj baji nii doo toog doo dal ak lu ne nga jéem koo xam lu ne nga jëm koo yër lu ne nga jéem koo luñutu kenn ku ne nga jéem a xam biiram xam ay sikkam seigne touba neen loolu murit bu ko du ko def loolu mandargam da nga am ñàkk bopp la ak ñàkk xel ak xel mu woyof kon murit dëgg-dëgg day yar jëmmam loolu mën naa dugg ba ci masalan internet internet ak géej la goo xam ni nii kenn xamul fu mu yem lu baax a ngi ci lu tuuti waaye li ci ëpp lu bon la te bo ci duggé ni yow nga ak sa portable kèn du la contrôler kuma yalla subhanahu wa taala kon nak geej gu mel noonu ci duggé war nga jëfëndiko li moy bul def lu ne nga yër ko wat tatallua ila wat tatawula ila tatalluin ala xafiyin di Sëñ Tuubaa wax bul def lu ne nga yër ko sit bu ne nga dugg ci pass bu ne nga xol ko soko def di nga xol lo xamni dana sa xol xam ngeen ni xool dafa am solo lu xaraam suñu borom yoon yonte bi dafa wax ne lu xaraam boo ko muñee bañ ko xool yàlla lam la koy weccale mooy neexitu ngëm ci sa mooy booy jaamu yàlla day neex ci yow soo dee def lu di xool lu nag booy jaamu yàlla neex ci yow mukk jaamu yàlla sax da lay mujj soof mooy de sa xol yàqu te xool dafa doy waar ndax fi ne boo xoolee donte dangaa daal di bàyyi dafay des image ba di des sa xel léeg nga fàttaliku ko mu yëngalaat la yëngalaat sa yaram def loola ak mooy yàlla goo xam ni du la neex kon ab murit la war ci moom mooy jëfe ndigale sëñ Tuubaa yi nii ndigal moo su di sëñ ak murit la ci jëkk nag mooy ndigale sëñ Tuubaa bokk na ci mooy li mu wax nii mooy murit da yar jëmmam du def lu ne fu ne mu xool fa sëñ bi dana wax ne wakkun la dal majlisi saakinal jasad walaasimi samta bi iraadin tufad boo toogee ci jataay na nga na na nga toog ne cel yar sa jëmm wala takun multamisat lil asaraat wala tubaaxis abadan an awaraat bul gëstu sikki kenn bul dugg ci débat yi nga xam ne dañuy def nit ku ne ñu jël ko teg ci taabal ji di wax ay sikkam li xorom mooy li xew léegi nga xam ne xadra lañ ko tudde ak ay débat yu kenn xamut mooy toog dëkk ba nga dëkk kenn du baax kuñ jël rek ñu waxal la ci moom sikk yoo xam ne ndax day mel ne kenn boo xam am ñoo xam ne wut ab set place teg ci loolu ña koy def ñoo sikk sikk dëgg-dëgg mi ngi ci ki nga xam ne mooy wax sikki jàmbur suñ bay jaxte daa wax ne ab dof bu yeddee ku dul boppam ndofam nga du wér te kenn du dof ku dul kii fàtte ay ay ayibam kon suñ tubaab daa wax ne loolu nag boo ko bëggee la ngay jëkk a def mooy xool ñi ngay àndal wala tujaalis gayra bi bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanal muraad ñi ngay àndal na nga leen xool bala nga ànd ak nit na nga ko xool ba xam ne kii boo àndeek moom dana la yokk ci wàllu diine wala mu yokk ci wala yokk mu yokk la cim xel loo xam dana amal njariñ tey wala ëllëg nga doog àndak ànd ak moom <coughs> ndax fa axbaru bi annama al maru ala diini xalili nit ku ne kam àndal rek lay bokkal diine moom lay bokkal jikko kon na nga seet ñu ngi àndal loolu la sëñ Tuubaa daa digle kon loolu itam poñ bu am solo la ci ak murit bokk na ci itam lu am solo ci xeeti teggin yooyu may wax ndax teggin day lu yaatu yaatu yii nii yu sew sewaan la yoo xam ne duñ ko seetlu waaye lu ci am solo la bokk na ci teggin yooyu mooy am teggin ak mboolem nit ñépp tey am na ci ñoo xam ne ci nun dañuy jàpp ne murit mooy koo xam ne rek faalewut kenn ku dul sëñ bi daal da am Woro ko jox ben cër waroo jëflante ak mom ci ben anam gu rafet te lolou sik la lolou du mourid seigne touba dara xane wakun ma an-nas jami' bil al hasan nit an-nas moy nit ñi ñii jullit ak ñi dut ay jullit ak jullit ñi ci ay murit ak ñi dut mourid ñepp na nga ci jëflante ak ñom jikku ju rafet al badi lolou ci ngay amé mbeugelu suñu borom jël la suñu borom di bëgge boleh def loolu boo def jik gis rek jëflante ak moom ay teggin jëflante ak ab yar jëflante ak jikko ji rafet ci la la borom di tanne bëgg la buntu la bu gaaw ci am ngërëmul yalla seigne touba dara wax ne wa qawla li kulli fa innahu min shiyamil aqyas nit ko gis nit ñepp na nga nooyal sa wax ci seen kanam waxal wax ju noy ju tey ju rafet ju neexa deg bul wax kenn lu ñaaw Sëñ Tuubaa dana wax ne wala taqul li ahadin kadabta nit ki bu waxee loo xam ne dara du ca dëgg moom coow moo xam ne du dëgg jataay bépp xam ne du na bul ko wax mukk lii nga wax du dëgg mukk bul ko ko wax wala taqul li ahadin kadabta aw qulta gayra al xaqi aw axtaata bul ne kenn juum nga bul ne ko waxu dëgg bul ne ko fen nga ne ko xamewuma ko woon noonu rek dama jàppoon ne daal du noonu waaye nag kon maa juum neen noonu ngay wax loolu dinaa ci misaal xisa bu bu xaw a xoromu ni daa ko wax la rek jataay sama benn mbokk moom ko nettali xaw ma nag moom wax dëgg fu mu ko jëlee waaye moom nit ku baax la waaye dama ci misaal rek teggi ni murit ni mu daa feeñe ci seeni wax dafa wax ne sëñ bi dafa mës a laaj dégg ab yëngu ci dëkk ba laaj lu xew nee na bi mu ñëwee ba ci fi taalibe yi toog mu laaj leen ko am kenn ku ne ko su ma ci amee ndigal dinaa la wax li xew sëñ bi ne ko am nga ci ndigal nee na mu ne ko jaamub yàlla la woon bu xeeb wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmbur di ca sàkku ndolleen te amu ci ndigal boroom wërsëg wa fekk ko fa ñu ànd ñoom ñaar di jiitle di yokk seeni jéego tuut tànk yawoon ci pénc ma di leen yokkale jéego yi mu mel ne ka jiitu ka jiitu woon dañu dab ba di ko tegu ay bant nga bo seer na da gis ne ki nett na qissa bi nett na qissa bo xamni ni ab xew-xew la bu am bo xam nett na ko bu mu àgg te genn togn ne ko ci jaamu bi yàlla la won bu xeb wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmbur di ca sakku ndolen te amu ci ndigal borom wërsëg fek ko fa ñom ñaar ñu jitt le di yok seen jéego tout tank yi ci pinci mi di len yok yokkale jéego yi mu melni ka jitt won lañu dab ba di teggo tegoo bant xisa bi nettali na ko ba àgg sëñ bi xam na li wax yéen ñi koy déglu fii ne xam ngeen li xew te dara ci tooñ nekku ci loolu moo doon waxee ni murid euh, murid dëgg-dëgg fi bu la masaa lam la mag ñi mag ñi fii buñ masaa di wax xale sax buñ ko daa wax mere ko ba di ko yedd dañ ko dañuy wax dañuy lakk damay lakk sa lu bon masalan lu bon ci nit ki boo ko lakkee xam nga loolu moom xewal la loolu moo daa wax ji gën a ji mën a mën a jàpp ne wax ju ñaaw la ci ñoom ak nit wala ñu ne kii na la wala ndanga yu demee noonu baat yoo xam ne lépp lu baax lay lay delloo kon jëmmi wax ji ngay wax ak nit ñi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dafa moo digle ne na nekk wax ju nooy ndax maslaa gi nga maslaa nit ñi di fexe ba seeni xol dara bañ ko bañ bañ ñàkk-ñàkk bañcaane loolu sëñ Tuubaa dafa wax ne képp ko ànd ak ñoom am na fu mu bind ci maj moo am bi wax ne képp koo xam ne dangaa wax ne maay sa kilifa maa ngi lay digal an yatruka maa yaksiru xaatira ahlil ard ahlil ardi mboolem ñi nekk ci kaw suuf bul wax lenn loo xam ne day naqari kenn ci xolam képp ko di murit aju ci man sëñ Tuubaa loolu laa fexe ba bul wax lenn loo xam ne day naqari benn mbindeef ci kaw suuf maa yaksiru xaatira ahlil ardi la lu bàyyi ko ci moom dara wax ne kon xibba jamii al muminina ñi gëm yàlla nga xam ne moom dañuy ay jullit moom ñoo ñoom da nga bëgg ñëpp naawiyan xayran lahum takun li xayrin xaawiya na nga bëgg mboolem ñi gëm yàlla ñëpp te itam yéene leen aw yiw boo ko defee di nga am di nga lu baax da ci daa tegit ne wa ahbibil mumina lil imaani wa abridil kaafira lil kufraani walaw ata ilayka bil jinaaya zaaka wa za bil kifaaya tey ab julit bi nga xam dafa gëm yàlla akub yéefar la wax ne na nga gëm julit bi ngir ngëm gi mu gëm yàlla yéefar bi itam na nga bañ ci moom kéefar gi muy wedd gi mu wedd yàlla bu yéefar bi bu la indi loon lu kenn xamul lu ñu toll ci alal ak xaalis itam bu mu tee nga bañ nga bañ kéefaram googee mooy ñàkk gëmam yàlla gi julit julit bi itam bu la dëkkoon di la tooñ ak di la def loola metti itam bu mu tee nga bëgg ko ngir gëm gi mu gëm yàlla loolu mooy ndigal sëñ Tuubaa xaw ma nag ñun ñëpp kenn ku ne lott na ci xëy na defee ko ni ko sëñ bi bëggee ak ni ko sëñ bi diglee waaye lii mooy ndigal sëñ Tuubaa tey dinay wax lu bare bare nun ñu bare bare ci nun xaritub xaritub tubaab léeg moo leen di gënal xaritub tijaan masalan te tijaan ay jullit lañ di suñu mbokk yoo xam ne sëñ Tuubaa ci boom da ci amoon ay kóllëre ba mu nekkee fee ca Jolof këram ga ca Jolof wax nañ ne jàkka ja daana may ay tijaan ya ko fa daa seet si ñu fay wasifa ci biir jàkkaam boo ko seetloo ci yeneen fànn yëpp loolu dama ko misaal rek ci tijaan waaye mën ko misaal ci yu bare bari mooy mooy ñu bare ci noonu tubaab dañ ko teg foo xam ni muy ab yéefar rek bëgg ko daanaka am moom ay relation yitteel leen Sëñ Tuubaa dara wax ne bul yem ci loolu ñi nga xam ne duñ ay duñ maanaam bokkuñ ci yoon ci misaal nga xam ne ci yeneen tarixa lañ bokk di ay sëriñ mbaa ñuy boroomi xam-xam ñooñu nang leen fonk wazur xiyaar al ulama wa saalihin waxdim humu lillahi jalla kulla xiin watlub duaahumu wa minhumu abad kun daa tabarrukin fa tasdaad al ula boroom xam-xam yu baax yi ak mboolem nit ñu baax ñi sëriñ su baax si ñëpp na leen di siyaare siyaare leen ngir yàlla tey itam bu leem ci lool loo leen mën a defal liggéeyal leen ko te yàlla tax nga def ko ngir ngir yàlla koo gis ci ñoom it nanga nga ci moom ñaan te itam na nga barkeelu ci ñoom loolu da lay yokk rek ak njub waaye du la wàññi dara loolu la suñ tubaa daa digle ndax da ci daa wax ne fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arshi fii ma qad nuqil boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam ragal yàlla boo ko dee wormaal aka jox cër loolu ci warmal sun borom lay dugg seigne touba non la ko tabon ba ci tariikha yi dara xane bul sikkal ben tariikha ndax mbollem tariikha yépp ci yàlla lañ wote jëm fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil arsh haythu ma jala bil istiqamati fala tashkhar abad fala tashkhar ahad minhum wala tunkir alayhim abad moy bul ci retan ken bul ci weddi ken bul ci dingat ken ben tariikha da nga maase ñëpp japp leen ngir yalla war ma leen jox leen cër te yow nag sab sëriñ it nga ngoy ci nga ngoy ci ngoy gu dëgër waye loolu jotewut ak dara war ma ji ngay jox ñeen sëñ Tuubaa daana wax ne julli yeek wor yi ni ni aljana la la mëna yobbu waye war ma nak ak ay teggin moy li la mëna yobbu fa yalla moy li lay may ngeerumul yalla moy li lay tax sa digënté yalla jakk motax war ma di lu dëgër ci l'islam di lo xamni itam sëñ Tuubaa fonkon nako yal na yàlla defal tawféexi dégg ak topp lépp lu ci baax noo ngi koy sant yàlla xam ne fa moom la jóge subhaanahu wa taala lépp lu ci dëngit noo ngi koy jégalu di ko jégalu yàlla di ko jégalu mboolem ñu koy dégg in uridu illa al islaah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalah min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin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 di amaan mbégte ci dajewaat ak yeen ci suñu jataay bi tudd yoon wi di fàttali rek ne noo ngi woon ci mbir yu bare bari yoo xam ni ay ponk la yu dëgër ci yoon wi sëñ bi daa ko digle te noonu niñ koy dunde tey wuuteeg na ko sëñ ba doon doon doon digle ak na mu ko doon waxe ak nam ko doon bëgge ku ko dunde noona loolu nag yaakaar naa liñ ci wax ni xaw naa doy kon damay koy tënk foo dugg ci beneen pàcc mooy jëmmi murit bi nga xam ne nag bëgg naa sàmm ak ak muritam nan lan mooy yi nga xam ne ca la war a njëkk a jëm ci kaw ni ko sëñ Tuubaa waxee sëñ Tuubaa wax na murit bi fan la war a tàmbalee lan la ci war a teg lan moo ci war a toppaat ginnaaw bi loolu nag foofu lañ bëgg a duggee di wax ne yee ñu doon wax yu bare bari la yoo xam ni ne su ko jeexal waaye li ëpp solo rek mooy delluwaat ci mbindum sëñ Tuubaa yoon wi yoonu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mooy ki doon jàngale yoon wi yàlla waajal ko tànn ko sellal ko xamal ko lam ko xamal ci mu war a gindi nit ñi jàpp ci seeni loxo yóbbuwaat fa yàlla subhaanahu wa taala kon nag moom li mu wax mooy li jiitu wax yépp ni ma ko waxee ci sëñ sëñ Mbay Jaxate noonu ma wax ne sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te dégle na yii moo ko warkat wàcc na mosula mooy mosula fo waxama gën waxi ku ne jëfama gën jëfi ku ne waaye ma gën waayi ku ne waayam ja dëgg nag du fo waxama gën waxi ku ne mooy kuñ la ne moo wax nàngam rek lu waxam rëy rëy rëy waxi sëñ bee ko féete kaw bu ko defee itam yooyu ma doon wax ngir jeexal ci rek damay indi loo xam ne sëñ bay jaxate da ko wax muy am solo tënk mboolem li xew xëy na jamonoom loon wax waaye mën nañ ci jamono jii nii ci la gën a euh, fees sëñ bi dafa wax ne da doon wax léegi li xew ci jamono wax ne xastee fi xew ak i fen kuy mer di wax sa ayib suy bëgg di wax lu la saf loo xam ne nii gëmu ko ku bëgg ci yow ne la yaa gën ñëpp saa bu mere ne ci yow ne ñëpp la gën wax say ayib wane ko doo daw baraw ci merum nit mbaa nga jot ngërëmam moo tax defal li nga man yow loo mënul bàyyi ko doo daw baraw ci merum nit mbaa nga jot ngërëmam moo tax defal li nga man yow loo mënul bàyyi ko li xew ci ji jamono bon mat na fukki yëf ak yenant mooy ñeent yàlla na nu mooy déglul ma nettali ko rëy ak kañaan ak dogu mbokk ak di xas ku la gën fopp ak di yab ku la man ak jëw nit ak beru ko ak lepte doo xam fay ak fecci wëllëre ak wayaani seex ak ku am as lëf nga dem gane ko ak bëgg àdduna ak sàggan ci laaxira nag ak fàtte yàlla mu rëy mi mat di fàttaliku li tax ña baaxoo na baaxit mat na fukki yëf ak juróom juróom akus lëf xarit diglul la tax ña mat na fukki yef ak juro mako leuf xarit ndax yalla seddenuko way deglu ma nettali ko ndax yalla maynuko la ca tuwa Tuubaa mu ñëkk ngor ak diine ak fay bor bala faye jot ak sam wëllëre ak nax nit ba xettali ak suufe ak wax ca suuf ak doylu ak baña xir ak toppatoo ndigal ak farlok farloka fedliko ak wacc lépp lu bon ak sax ci lépp lu jub dalal di def mbaa nga fab say mbir te jébbali ko te jébbali ko ku mënta def am njariñ koo xam ne lott na it dafa mbiram joxe gàccaam rot ñu dimbali ko yow boo amee sa sa bopp war ca ta dem ndegam amoo ko joxe lës lëf te néggandi ko kon <clears throat> loolu suñ mbay jaxale dafa tënk yi xew te wërta xew ak li nga xam ne ci lañ war a nekk bayit yooyu tënk na ko moo tax murit nag ci loolu ci ñooñu rek la war a roy ci wax yu mel nii nga xam ne sëñ bay da koo wax sëñ mbay jaxate ci jamono sëñ Tuubaa la daa waaye te ay waayam sëñ Tuubaa ci moom da ko daa diglu wax ni sax sëñ bi daana ko wax ne maanaam daana ko daana ko jox jox ndigalul mu way am na yu bare bari yuñ ci nettali kon loolu mooy mooy mooy mooy gàttalu li weesu murid bi nag li mu war a jëkk a def <coughs> mooy bëgg sëñ Tuubaa loolu mooy li koy booleeg sëñ bi la ci jëkk ci ki nga xam ne bëgg naa jaar yoonu yoo ci yoon wi te tegu ci yoon wi ci anam gu mu gën a wére da war a gën a yittewoo mooy nàmm mu bëgg sëñ Tuubaa ci xolam ndax bëgg señ tuba moy li dajale mourid yépp dina wax lé lék né mourid légui dañu dañoo séddali ko ci ay patch kenn ku né japp ci lenn ci señ tuba japp né loolu rek moy moy moy mbir ma waaye boo seetloo ñom ñëpp lén dajalé moy bëgg señ tuba am na ci mourid yi yoo xam ni dañoo ci xasiri señ tuba yi moy ci mu dëgër ci lool am ci ñooñu mbooloo lañ moo xam ni ñenn ci ñoom ñi ëpp wala boog ñu bari ci ñoom jàpp nañ ci anam gu wér maanaam nañ cey doxee anam gu wér la laa bëgg wax waaye am na ci seen biir nag ñoo xam ni anam gañ cey doxee du gu wér loolu lépp ci ñëwaat bu soobee yàlla waaye boo seetloo ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xasida yi dañuy jàpp ne loolu ku nekkul ci xasida rek nekkoo ci dara loolu xam nga am na du ñëpp ba tey ci seen biir ba tey am na ñoo xam ni fi ñu gën a màcc jëm mooy ci wàllu tudd yàlla ak li ñuy tuddee ak Baay Faal nga xam ne moom ñoom itam tudd yàlla gi ñuy def nii ak toroxlu gi ñuy toroxlu ci ci ci mbedd yi ak ci kanam nit ñi ñoom it dañuy jàpp ne loolu dong moo def murit ñëpp ci ñoom jàpp nañ ne loolu ku ca nekkul da am am duggagoo ci murit boo seetloo ci wet gi da gis ñoo xam ne ay boroomi xam-xam lañ di gëstu di gëstu ci mbindum sëñ bi di defari téere di leeral. li nga am di wax ci walu xam-xam sëñ bi lim wax ci économie lim wax ci walu xam-xam science xeeti xam xam diiné yi la ci sëñ bi wax ñu jël téré yi di ko ak defar ak défarat ñoomit buntu bobu lañ duggé ci sëñ bi waye japp nañ ni itam ku nekkur ci loolu da nga am do murit sa way wala bo xamal lu bari ci mourid gi am na xamni xam ne masalan boo demee fu melni ne Mauritanie gi <coughs> da nga fa gis mourid yo xamni ne <coughs> ma xos bi sëñ bi yoron lañ japp ne moo rek murit ku ko jëlut do murit dugg ko am na sax ci biir réew mi ñenn ñoo xam ne ñoo ñoo bokk moo déggin ci loolu kon sëriñ si sëriñ boo gisee ñi nga xam ne ñoo ko topp ay xaaj lañ waaye boo seetloo nag leen lëkkale yooyu ñoom ñeent kuréel yooyu yëpp mooy bëgg Sëriñ Tuubaa gaa yi jàng xasida yi leen ca soob mooy bëgg kuñ bëgg Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa lañuy xañtu gaa ñi yor ci nekk nekk maanaam gaa ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla ci mbedd yi ànd ko toroxlu ak dëddu àdduna ñoom it boo seetloo la ñuy def nii leen ca soob mooy bëgg sëñ Tuubaa gaa yii di jàng xam-xam tam di kër kër ci mbindum sëñ bi ak leeral la kër defaraat ñoom it leen ca soob mooy bëgg sëñ Tuubaa ñi nga xam ne itam ñooy jël wéru maaxos mi noonu kon boo seetloo bëgg mooy Tuubaa mooy li lëkkale mboolem yoon wépp murid bi foofu la war a tàmbalee mooy namm bëgg sëñ Tuubaa ci xolam soo ko defee di nga mën a ànd ak ñëpp it boo ànd ak ñi jàng xasida dañ jàpp ne yow jànkatu xasida kese nga boo ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla ñu yaakaar ne yow zikkar laa laay illallaah dong mooy sa mbir soo àndeek ñi gëstu xam-xam ñu jàpp ne yow xam-xam mooy sa mbir soo ñi wérdu maaxus jàpp ne yow maaxus rek mooy sa mbir loolu dinañ ci ñëw ci gën anam gu gën a anam anam gu gën a yaatu mooy ñeenti kuréel yooyu yëpp man jàpp naa ne ñoom ñëpp ñu ngi ci murit ñu ngi ci dëgg donte nag ci seen biir foo ci dugg ci seen biir dana ak ëppal goo xam ni da ko mën a seetlu waaye loolu terewut ne ñoom jàpp nañ ci sëñ bi ci anam gu dëgër dugge nañ ko itam ci bunt bu wër bu ko defee kon loolu mooy li jëkk mooy bëgg sëñ Tuubaa mooy li dajale yoon wépp mooy li nga xam ne moo lay booleeg sëñ bi itam sëñ Tuubaa itam daana wax ne bëgg sab sëriñ boo ko bëggee bunt bi ceeb ji mooy mooy def ay ndigalam ak bàyyi ay teram loolu sëñ Tuubaa daa wax sab sëriñ it ngir mu bëgg la mooy bu la gisee nga sax ci ndigal yi di moytu ay terem te yàlla rek tax day xam ne yow yàlla la ñor moo tax moom da bëgg ngir yàlla sëñ Tuubaa wax na ko mu ngi ci majmuwa bi wax na ne loolu mooy ceeb yi bëgg sab sëriñ ak sab sëriñ bëgg la bu ko defee itam ginnaaw sëñ Tuubaa nun fekke wuñ ko nga xam ne bokkuñu ak moom jamono ci misaal faaw ngir nu bëgg ko dañuy xam ci moom dara faaw nga gëstu señ señ señ bi mooy kan nan la doon dundee mboolem ñi nga bëgg nii fi ñi ci bare bari fekke woo ñoom jamono masalan ci lislaam da gis ñu wax nañ bëgg sahaba yi bëgg Seydina Omar ali Aliou Seydina Ousmane Seydina Aboubacar waaye gis ñu leen mosu ñoo xam ku leen gis waaye lañ leet ñoom ci lu baax ak ay jikko yu rafet loolu mooy tax ñu bëgg sahaba yooyu mooy tax ñu bëgg nit ñooñu Seydina Muhammad mi nga xam ne ki yàlla yoon woon it noonu moom it gis nga fekk woon ko jamono waaye li ñu nettalee ci moom tax na nu bëgg ko bëgg ko dëgër ci suñu xol moo tax Sëñ Tuubaa itam boo bëggee bëgg ko bu wér-wér faw nga jéem a gëstu ak dundam aku melow lenn am na itam ci ñiy nettali Sëñ Tuubaa <coughs> dinaa ci wax lu gàtt nii ci sëñ bi waaye duma ko wax ci anamuk ni ko ñu bari nettalee mooy kañ la gane dëkk bi la dëkkoon ak dëkk na fa bërëm sàngam ak at sàngam yooyu anam gu baax la histoire la waaye li ëpp solo ci sëñ bi mooy dundinu sëñ Tuubaa ak jikkoy sëñ Tuubaa ak melow sëñ Tuubaa masalan xeet yooyu bokk na ci li gën a gaaw a dëgëral ak bëgg sëñ Tuubaa ci sa xol boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy gëstu philosophie dañu wax ne bëgg li tax nit ki bëgg ñetti mbir la mooy li ci gën a fes bokk ba njëkk mooy ab taar mooy jëmm ju rafet nga bëgg ko ngir ne dafa rafet wala masalan xéewal guy bàyyi ko ci moom agsi ci yow damaa dama dafa bëgg ku ko defal dara su fekkee ne nit ki mi ngi lay jox nii danga koy bëgg moo tax ab sëriñ akub taalibe sëriñ bi di wax ne maanaam maanaam sab sëriñ boo ko amee danga koy jox addiya addiya ji limi waral moy day tax sa sëñ bi sëñ bi gën laa bëgg te bu la gëna bëgg nga gëna jarign kon lolu benn buntu la ci moy jox joxe eh, ak joxlante ay teranga lolu bokk na ci li sawb ak ak ak bëgg ci ci xol ñettal bu moy nit ki am daraja ak def lu reuy ak am ay jikko yu rafet lolu bokk na ci li tax nga bëgg di ndax nit ki ruham mo bëgg lu sel ak lu bax ak jikko ju rafet ak ku jege yàlla doomu aadama dinaay wax lu bare bari ne ñaara ko seq mooy jëmm ji nii ak ruug gi nga xam ne moom la jëmm ji ëmb ruug googu nag moom yàlla ca la jóge ci pays yu kawee yooyu la bokk bokkul ci monde matériel bii ne waxoon naa ko ci émission yu weesu ruug googu fi mu ne ba léegi yàlla rek moo ko neex fi mu ne bu bu xawee bu ko yàlla naqaree nii wala mu mu mu mu mu mu mu mu bañ a bëgg yàlla wala mu bañ a bëgg dara yàlla nii dafa feebar comme li nga xam ne sa sa jëmm ji nii day feebar ba lim gën a bëgg moom lay gën a bañ nit ki dana feebar léeg-léeg ba lekk yi mu gën a bëgg ay ceeb yooyu moom lay gën a bañ bu ko xeeñee sax mu waaj a mu waaj a noonu la léeg mu feebar ba lim gën a bëgg muy yàlla ak lu aju ci yàlla loolu lay gën a bañ ni nga xam ne jëmm jiit it fi feebaree dañ koy faj yóbbu ko hôpital ñu bindal de nga am garab ay comprimé nga dem jënd ko jëfëndiko ko nañ la ko waxé mu wër pelek jël lam gënoon bëgg na ceeb ya ginaar yo lay gëna a bëggaat la roogi mel day fébar nga dem ci docteur docteur moy sëriñ si sëriñ si bo ñëwé ñu teg la ci yoon yoon ñu lay teg moy ordonnance bi boko jëfëndiko dir bu neew seru wéraat nga bëgg lu baax di dem ci di dem ci màggal yi jataay yi neex la nga tàmbali yëg ne bëgg nga nit ñu baax ñi boo gisee nit ku baax nga bëgg ko siyaar ji ak yu demee kon li ma bëgg a xam mooy loolu it bunt la kon ñett yooyu mooy li tax nit nit ki bëgg ñett yooyu nag luñ ci seet ci sëñ bi nii dañ koy gis bu dee meloo sëñ tubaa dañ ñëw léegi sëñ tubaa jëmm la joo xam ne ku ko masaa gis rek bëgg ko moom sëñ tubaa damay bañ a fàtte mm-hmm. waaye dinaa ñëw ci <coughs> dinaa ñëw ci itam li nu Sëñ Tuubaa defal bu ma ko fàttewut dinaa ñëw itam ci jikkoom ak ni mu doon jaamoo yàlla bu soobee la bu ko defee balaa loolu bëgg na ma wax tuuti ci bëgg na ma wax tuuti ci bëgg na wax tuuti ci rek ne bëgg ni mooy mooy mooy li sos diine yonente bi aleyhi salaatu wa salaam dana wax ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmaina mooy bala nga mën a am ngëm dag ma bëgg man rasulullah sallallahu alayhi loolu ci xel ni rek mën nga ne ginnaaw yonte bi yàlla da ko yónni muy ab yonant yow ñu yónni ko ne ko boo demee wax leen waxal nit ñi nangam mu ñëw jot li yonante gi lañ ko la ko yàlla yónni woon loolu loo ko ci bëgg xam nga waroo ko gis nit ki xam ne laa yoon dañ ko yónni ci yow muy indi la ab yonant nga ñëw ñëw wax la ko delluwaat kooku nga bëgg ko loolu warut am war waru ci waru cee bokk waaye dafa moom dañ ko cee sart mënta ñàkk li ko war a mooy bëgg ci boom mooy bunt bi nga xam ne mooy lëkkale xolub ki bëgg ak kam bëgg loolu boo gisee meloy aw murit ak ab murit Sëñ Tuubaa ba mu koy lim di wax ne la ca jiitu mooy as-sidqu ma mahabbati cheikh yi صفات صادق المريد باختصار أربعة نظمتها خف اختراع الصدق في محبة الشيخ أبد mooy la ci jëkk mooy bëgg wér nga bëgg ko sab sëriñ mooy tax sa xol ak xolub sab sëriñ mën a communiquer fi ne mbooleem gaay yàlla yi li ñuy jokkalante ci wàllu roox boo seetloo yëpp ci wàllu xol lay doon ak wàllu roox nga xam ne seen xol ak seen roox ñooy jokkalante di mayante ak di wàllante loolu nag bëgg mooy tax ñaari xol yi communiqué moo tax bëgg googu mënula ñàkk kon incha allah ci jataay yi jub si danañ waxtaan ci jëmmi Sëñ Tuubaa moomu leeral la ci tuuti ci ak dundam loo xam dana tax yow nga gën koo sopp ndax cofeel googu mooy buntu ak tere bi mooy tax nga mën a jariñu ci Sëñ Tuubaa boo ci nekkee nii te sa bëgg wérul ci moom ni nga ci war a jariñoo doo doo jariñoo noonu ngir nga bëgg ko na itam noonu ma ko waxee rek faw nga xam ko moom benn loolu mooy la ci jiitu kon ci jataay yi jub si ci loolu la ñuy waxtaan doog a dugg nag ci li Sëñ Tuubaa digle nag te muy lu yaatu loo xam ne daanaka mën na ne ngirub dund ma naa bañ a jeex waxtu na rek ñu jël dara waxtaane ko ci biir yi sëñ bi daa digle wasalaamu aleykum wa rahmatullahi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 wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki taalibe yi ni diglu yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ak fu ngeen mën a nekk jataay bi weesu woon noo ngi doon waxtaane ne ab taalibe ab murit la jiitu ci moom mooy bëgg ab sëriñam loolu moo jiitu sax ci ab jullit waxoon naa ne yonente bi alayhi salaatu salaam day wax ne jullit bi bala moo mën a gëm yàlla balaa ngëm yàlla dugg ci xolam daa bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam mën ngaa nekk jullit di jullee ko woor te fekk gëmu ko yàlla loolu day am sunu borom ci alquran dafa ne qaalat al aarabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna mooy yéen ngi ci islam mooy àggagu leen ci iman mooy ngëm duggagut seen xol wala maa yadxulu limaanu fi qulubikum loolu day am mooy nit ki day nekk ci lislaam mooy di jullee ko woor ni te fekk xolam gëmagut bu wér yàlla subhaanahu wa taala ngëm googu nag bokk na ci li koy sabab mooy bëgg rasul alayhi salaam salaam kon jullit li jëkk ci mooy bëgg rasul alayhi salaam salaam ab taalibe itam noonu taalibe itam bala laa sëñ bi jariñ la ci jëkk mooy nga bëgg ko wax naa ne bëgg mooy tax sa xol ak xolam communiqué muy mën a am luy rote ca xolam di toq ci sa xol te xam ngeen ne ab sëriñ rek la tax ñu koy topp fi ne du jëmm ji nii ruux ga ca la nekk te ruux googee du faatu day day génne ci àdduna bi rek dem ci beneen àdduna xam ngeen ne faatu ñaari anam la nga xam ne wala i mittum aw xutiltum li suñu a wax mooy léeg mu li ñuy wax dee nga xam ne digg bay jot ñu not ci roogi mu génn jëmm ji nam meloon lay mel nekk fa wala boog ñu rey ko mooy ñu ñu ñu dakk jëmm ji wala ñu fetal ko wala ñu yàq dara ci jëmm ji ba ruu gi mënatu fee dëkk mu génn ruu jëmm ji da ko dëkkee rek ngir mën a jëflante ak adduna bi <coughs> loolu mooy mooy mooy mooy gàttal gi kon ngir ñaari xol nag mën a communiquer lëkk la ko la leen di lëkkale loolu mbir ruux na faw rek di nga am ak bëgg moo ko waral kon nag nun nag ngir nu ngir nu mën bëgg sëriñ bi itam faaw na xam dara ci moom sëñ Tuubaa bu dee yi tax a bëgg te waxoon nañ ko ca ngir bañ a baamuwaat rek ci ci jataay bi weesu la ci jëkk mooy nit ki li ëpp ci li tax mu bëgg mooy jëmm ju rafet donte nag bu dee ku mel ab sëriñ moom la tax la tax nga bëgg ko la cëpp mbirum yàlla lay doon xam nga ne ruux ni ma ko waxoon yàlla la sopp lu gën a jege yàlla noonu la lay dootu am ci moom sago da koy bëgg bu ko gisee rek day xëcc jëm ci ci moom boo gisee nit ñi xëcc jëm ci sëñ bi seeni roo ñooy bëgg yàlla bëgg mboolem lu ko jege Sëñ Tuubaa nag bu dee ci melaw jëmmam ja nga xam ne ñu bari ci bindkat yi melal nañ ko bokk na ci ki nga xam ne mel maanaam moo gën a fës ci nim ko melale ci ñi ma gis ñu bind ci moy ki ñax Sidi Ahmad Wildu Ismu ci téereem bi mu tuddee al maqulaatu fil xaadisaat teewul sëñ Laji Mbàkke moom sëñ mustapha Habsa téereem bi mu tuddee safwatu sir téré wolof momit indi na ci melo sëñ bi ci anam gu yaatu sëñ Basiiru itam melal na sëñ bi ci ay anam yu yu wuté ak bërepp yu wuté wuté dajale ko ci benn bërepp waaye ci biir téere bi boo seetlu bari na bërëb yoo xam ni melal na ca sëñ ba sëñ Mat Lamin Jóob Dagana itam noonu waaye nag ñeema njëkk a wax ne ñoo gën a yaatal ci melo sëñ bi ñoom dañ lay wax ne ku mel ne Sidi Ahmadu Dusma dafa wax ne sëñ Tuubaa xar kanam bi yàlla dafa def mboolem lu dib taar daa mën da ko sotti ci xar kanam boobee mooy jëmm joo xam ne nit mosu koo mën a gis te soppaloo ko maanaam xool ko ni teg ko bët te ak te bëgg ko da da dominer sa xol mënta ne Cheikh Ibrahima Diop Machari danaa koy misaal lu bari gis nga moom yàlla da koo nattoo bi mu tu bi nga xamee ne jébbul na ci sëñ bi weer yu néew lañ ci teg sëñ bi dem gànnaar diggante boobu nag mu di ci def xasiida yoo xam ne day wax diggam ak sëñ bi ak cofeel ki nga xam ne moo nekk ci xolam nga xam ne bu ma saa dégg koo xam ne day bëgg ba mu àgg ci bëgg di ko jural ay jooy yu metti ci moom day yaakaar loolu ay caaxaan la waaye nee na maa ngi doog a yëg ne loolu lu mën a nekk ndax moom diir bu néew la dund ak sëñ bi sëñ bi génn dem gànnaar moom mu des fii ci réew mi am na ci biir ay waxam da nga gis muy wax ne xadiisuka li kaasun min alxamri mutribun wa dikruka shahdun fi lisaani mutayabu wa wajhuka badrun ida majtalaytuhu tabarrada akbaadi allati tatalahabu mooy say wax waxi sëñ Tuubaa ke minal xamri mutribun dafa mel ne kaasub sàngara ci man bu may diglu waxi sëñ bi duma meuna tok wa dhikruka shahdun fi lisani mutayyib turam yi sax rek fimne tuddu ko mo xeb mo raw xebulem ci sama ci sama lam ni neena xar kanam ba nak mom mom mom mom comme aw wer la sax dafa wax ne mo rafet wer wala anta ajmalu min sinima resama mooy yaa daq weeru dàq jant bi itam waaye nee na fu ma ko gisee lu sama xol bu sama xol naqaree amu metit mel na day takk ngir ay njàqare moom xol bi fu ma nee tegg bët sëñ bi rek fi ne nee na njàqare yooyu yëpp di daal saafara saafara ma yëkkati wenn metit damay am xol bu féex bu bëgg ànd ak dund gu neex laa yëg ba keroog ma ma ma ma di ko Nopegis. gis xar kanam ba non la ko non la ko ñaa ñëpp misaal loolu dinaa ci nettali <coughs> lu bare bare bare ñoo xam ni dogal mën nañu sax di sikk sëñ bi sëñ Tuubaa ay bis ba njëkkee jataay ak ñoom mom keroog lañu mujj xam sikk yañ wax nga dañ nongul sëñ bi duñ ci yem dañ koy bëgg-bëgg koo ni da leen di gënal sax seen la ko xar kanam bu lam euh kaddu gi Cheikh ahmadou Dis mi nee na gi neena dafa soufé waye kaddu gu neex la go xam nee na buy waxa yow do bëgg mu nopi ni ko sëñ Lamine ibrahim jour Masari waxe ay jikkom nak neena mo raw yoy yep na mom jikko yu sel yu rafet ko xam ni mu mu meuna do bëgg takalé ko ak mom bo nek ak mom nekulon jëm ju jëm ju njool bu upp nekkutoon itam ku gàtt bu ëpp li ñuy wax digg bi nit moom la woon mooy dafa yem waaye nag jëmm ju tuuti itam la amee woon wax na itam jëmm ju tuuti ji ñàkk lekk mook ko teg fi ne dafa am na ay famille yoo xam ne xam nga bu ñu lekkee rek dañu am yaram moom dañoo wax ne ci ci ñooñu la xawoon a bokk mooy dafa lekkul waaye bu lekkoon xëy na dana am jëm nekkoon koo xam ne waxtu ne day muuñ foog gisee da am bëñ ba ngay njëkk a gis day muuñ noonu la ko Seydi Ahmadu Desu misaale si laaj Mbakke bi mu wax ak colam di wax ne colam col col la goo xam da koy ëpp waxtu wu ne rawatina loxo mbubbi loxo mbubbi day ëpp loxo ba yaatu lool loolu boo seetloo da ngay gis ne kon mbubbi murit yi nii fi ne foofu la jóge mbubbi murit yi foo leen gis seen mbubbi yi day ëpp seen loxo yi col gi mu daa sori li jëpp daa weex col gu weex waaye col lay doon koo xam nit <coughs> gu ñagas lay doon du àgg bokkul ci tiise yi nga xam ne yu foor lay doon déedéet tiise boo weex lu mel ne perkaal ni ci misaal waaye lu weex lay doon li ci foo ko masaa jege itam moom sëñ Tuubaa xet gu neex moo lay xeeñ moo dafa bëggoon li wax laj ko leen rawatina sikki sikki ak bitel ak misk ñaar yooyu da ko daa jëfandikoo lu bari wax nañ sax ne fu masaa di jullee faw mu tuuroo biteelub sikki doo ko julli loolu si laaj mbàkki ma ko wax ci safotu siyar si dax mu lu si mu wax ne itam ne ab doxam dox bu gaaw lay doon xam nga ne yonent bi alayhi salaam ko daa misaale ka ka annama yan sabbo noonu moom yonent bi alayhi salaam ci misaalam boo gisee dañuy wax ne moom buy dox day mel ne ku bartani ko ci aw aw di ñëw Sëñ noonu laa doxee doxin wu gaaw kenn mësta masa ànd ak moom terewu la foo àndeek moom di dox faw moo la moo la moo la jiitu rawatina nag buy julli ji buy julli moom lu sab dox gaaw gaaw moo lay jiitu dox bu gaaw la waaye dox ba la muy gaaw gaaw fi ne du yàq dara ci ak dalam ak wegoom fi ne dox léeg-léeg boo ko gaawale ni mën naa yàq sag wegu wala sag dal nga xam ne kenn ku ne day gis day yëg ne yow da ngay di daw ni nga xam ne mën ngay mën ngay sax eh, di apaat waaye loolu moom lépp dawut am ci moom noonu la ko yàlla bi noonu ndox bi day gaaw lool te du feeñ ci ci ci mu sonn wala dara ab jataayam itam jataay bu sell la doon ci ni mu daa mooy day toog yëkkati ay tànkam nii teg ci loxoom li ci ci suufi la toog mooy jëmm joo xam ne mësta toog ci kaw bokk na ci li yi nga xam ne danaa koy wax mu yoo xam ne suñu toog mësu ko def te mu yéeme yéeme nga xam ne doomu aadama daanaka mënta dund ci kaw suuf ba jógee fi te defu ko bokk na ci ba mësta toog ci kaw moom sëñ Tuubaa jëmm la joo xam ne mësta toog ci kaw fi ne amoon nay néeg ñu daa ko ci defar lal yu rafet waaye mësta toog ci lal ci suuf rek la daa toog li ci ëppit sax suuf si daw ci lal dara ci basang lay lay toog <coughs> mësta toog it lu lu may ne daa jublu penku xam nga ne am na fanweeri mbir yoo xam ne yu dagan la nga xam ne kenn ku ne mën nga ko def waaye Sëñ Tuubaa da ko jaayante moom nga xam ne moom dana du ko def ci kaw suuf bokk na ca toog te jubluwoo penku mu mësta toog te jubluwut penku fu ma saa ci kaw ci day jublu penku mësta itam jëw nit wala mu wax waxi larax mooy wax ju amul solo ci ci jataayam déedéet mësta nongu itam kuy jëw kenn wala kuy wax kenn dara ci jataayam moo tax mu daa wax ne man sama jataay seytaane du fi jaar képp koo xam ni yaa ngi ñëw ci man xam nga nit ku ne am na malaayka mu muy dend ak moom ànd ak moom ak benn seytaane bu lëkkaloog moom it seytaane soo si lëkkaloo yow nag sëñ bi dana wax ne saa yoo jub see sama jotaay seytaane si dalay xaar ca biti ba nga ñëw fi man bay génn li nga fi jëlee soo ko sàmmee dootu la topp mukk soo ko sàmmul nag fi ne mu dal di dellusiwaat ànd ak yow lépp mit doole la ko daa defee Sëñ Tuubaa mooy koo xam ne naar yi gànnaar yi bu ñu koy misaal dañuy wax ne ida kabbara kabbara an quwa dégg nga wa ida xamida aw rakaa rakaa an quwatin bila doxfin wala kasal mooy lépp doole la ko def bu ne allahu akbar ci jàkka ji jàkka jëpp ko daa dégg allahu akbar ji mu wax day day day day day xomb ànd ak positif ab doxamit day gaaw ni ma ko waxee léegi mu boole ko wax nañ ne ci misaal ñi ñi nga xam ne ñoom lañ tuddoon daaree kaamil waa daaree kaamil mooy ay nit ñoo xam ne sëñ bi leen fa dajale woon bëccëg bi ñuy jàng alxuraan guddi gi tamit ñu koy jàng di ko tari ak di bind ay kaamil ak yëf waa daaree kaamil yooyu sëñ bi berne yëpp leen daa defal rek moo ko daa indil boppam sëñ Tuubaa bar li mu daa liggéey li cëpp moo koy defal boppam nga xam dañuy jëkk rek gis ko mu yanu dara indi am na ku ca bu ma sonn ku ma kenn mag mu ma nettali moo xam daa xam kenn ku ca bokkoon koo xam ne kooku nee na ko ñu bari dañu jàpp ne daaray kaamil daa neexoon waaye nag aggut wenn neexaat neexi bi ñu wax ndax léeg-léeg rek lay doon léeg-léeg sëñ fan yoo xam ne bis da leen di indi mën na indi sa ab gàtt nga xam ne moo koy jëlal boobu indi ko neen nañ ko defar ak yami àndal yëpp nga xam lépp moo ko indi bu ma saa di ñëw it fi ne dox bi day gaaw ñu dégg muy wax lu bari naan sabran jamilan laa takun kasula loolu la daa wax kon noonu la daa doxe lim laa defee lépp noonu la ko daa defee mooy kàttan feneen gis nga wérdam bi sax bi mu koy joxe bi mu koy génne bi mu koy joxe di wax ne neen ko xusoofu bi xuwa la wax neen ko jël ak doole ak positif ak kàttan ay waxam itam wax ju suufee la daa doon li ma ko waxee waaye li ci da koy baax mu ñetti yoon Hmm. waaye du wax itam dara lu ñaaw musu ko wax ci ci dundam ku gaawoon tontu itam la moy loko wax day mel tontu li ni ko wala yi waxee daa ci tuñu nga xam loko wax fa sase la da tontu te tontu la day jup and do ci mën a leneen itam li ci itam lu mel denkan yi mu daa da fi ne ay tombu, ak ay junju, ak ay laaj ab laaj ci wax yi da ngay gis da koy jëkke ab laaj ci misal waxam ji wax na mas nañ ne wax nañ ne waxam jëpp suñ Basiru daana wax ne waxam jëpp digle lu baax la ak ter lu bon maanaam biir waxam tu waxtu ne mu ngi lay digal lu baax di la ter lu bon li ci nag ci li muy digle ak li muy wax li ci ëpp da ko daa tàmbalee ab laaj ci misaal am na yenn nett li ñu nett li lu mel ne li mu wax ne mbaa xam ngeen loolu wax nañ sëñ Isaa Jeen la ko waxoon ne kon mbaa xam nga lan mooy bitim rew nee ñu ne ko bitim rew de moy nga joge sam rew dem ci rew menen manam di fa dara wala deme noonu loolu bitim rew moy menen rew mo xam bokk bokkut ak mi nga dekk moy len nuru nako waye bitim rew moy fi ne aduna si ne bitim rew la réew ma deug dëgg mooy fële àllaaxira wala yow ma xam aljana foofu moy rew fi ne moy bitim rew ku fi ne yaangi bitim rew bitim rew nak ku fa ne da war farlu ngir boo delloo ci réew ma man faa daje la nga fa daa yónnee fekk la fa waaw li nga doon def fii di ko yónnee sa dëkk bu ne fekk ko loolu misaal man misaal ci misaal dañu wax ne mas wax ne mbaa xam mbaa xàmmee ngeen rafet njort ak topp njort ñu ne ko boo ci baaxee nu jël mu ne rafet njort mooy li yàlla digle nga di ci jéem sa kem kattan li yàlla aaye nga di ko moytu sa kem kattan lu mu diggee ëllëg na nga yaakaar ci loolu mooy rafet njort topp njort nag mooy li yàlla digle doo ci jéem dara li yàlla aaye doo ci moytu dara doo ci moytu dara lu mu diggee ëllëg nga yaakaar ni yaa ci gën a yaay neen loolu mooy topp njort ci misaal daana wax ne mbaa xam ngeen mbaa da ngeen man dëkkandoo nu ne ko fas nañ ko yéene mu leen xam ngeen luy man dëkkandoo leen dëkkandoo mooy raqiibaka atiid mooy ñaari malayka alkiraamul kaatiboon yi nga xam ne ñooy bind say jëf malayka yi nga xam ne ñooy bind li ngay def xam ngeen nit ku ne am na ñaari malayka yoo xam ni wala mboolem ay malayka sax yoo xam ne ñu ngi ànd moom lu mu def ci lu baax ñu bind ko lu def ci lu bon it ñu bind ko malayka yooyu nag nee na bi nee na mu ñoo ñooy dëkkandoo ndax dëkkandoo yi ci des mooy ñi nga seq den ay kër ginnaaw boo tëjoo sa néeg la ngay def duñ ko xam ñooñu duñ sa dëkkandoo dëkkandoo mooy ki nga xam ne doo teqali moom mukk nee na kooku mooy dëkkandoo ci misaal daane wax ne mbaa da ngeen man gan ñu ne ko fas nañ ko yéene mu ne xam ngeen luy gana ñu wax wax ba ak gan mu ne gan mooy guddi ak bëccëg eh, ñooy ñooy gan ñi ku ci ñëw war nga koo teral teraa ngay bernde bernde jaamu yàlla ba bu bu demee nekk la fa waaye guddi ñëw walla bëccëg ngay fo ak a def lu kenn xamul ba guddi ga jàll loola gan googee tëraloo ko ci misaal loolu rek ay misaal la ci ni mu daa waxee nga xam ne cëpp da koy tàmbali ab laaj ku sell la woon te setit moom Sëñ wax ay wax nañ ne ci misaal ak solam dalaa seet wecc dàll yi muy solit fi ne heure nawet li dàll yi mu daa sol nawet bokkut ak dàll yi mu sol lu dul nawet nawet li ñuy wax ay karbat la daa la daa ëpp lu daa sol bu dee lu mel ne noor wala yeneen jamono itam am na ay dàlli boppam yoo xam ni <coughs> moom la ci daa sol bokk na ci lim ràññikoon nga xam ne sëñ Sidi Ahmadou Diouf wax na ko mooy ku rafetoon nga war la xam ngeen ne oto bi mu xew yàggut bu njëkk mag ngi fas lañ daa war fas it dafa am lu ñuy wax nga war mooy ñoo xam ne yow mën a war fas dafa am anam guñ koy rafet eh, guñ koy ware loolu it ba tey ci ngóor la bokk ak njàmbaar nee na wax jamono yi mu nekkee fele ci nari nar yi dañu yémon nim rafété rafete nga war mooy ni mu mën fas ak nim mu jekkee ni muy fas nek non itam dawut rétan rétan gu am kàddu moñ rek la la def lepp lu mi defit fi ne day wax bismillah njëkk mësta no ngit kenn ku ko defal dara té waxo bismillah seigne Basiru nett li na ne am indil aw ñam bo xamne xeyna bañ koy defar wala bañ koy tek dañ ci waxul bismillah mu ne ko xana xamone lek man day tudu go xamni ni ñu ci yalla bañ koy defar mi ngi melni med mo ngi med la yamale mo duma jëfëndiko lek go xamni ki koy defar tuddu ci yalla wala bimu koy tek waxul bismillah suñ bisur neen mas dama wax ne ma sama kër gi de lo fi gis mu tege mi ngi tuddu yalla di sabbal geneen sabbal gu bokut ak li yalla wax sàbbal gi yalla wax ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi moy mbir mo gis rek mi ngi sabal yalla waye sàbbal gogu mu bu ko ak yi nek sama sama kër gi dañu am geneen sabal guñ cey dolli ndax la ko waral moy lepp lu may def dama koy defee ci tour yalla bismillah tege ko ja lepp luñ koy def rek non la ko defee nek non it mës ta nongu ku jëfandikoo ab ndey jor rek ndey jor la koy defee suñ Basiru neena mas nañ ma yobante ci mom fekk boobu li ñu ma yóbbante dama ko def ci sama jiba muy poos bi nga xam ne moo nekk wetu càmmoñ nee na ma di ko génnee loxo càmmoñ bi mu mel ne lu ma gi soppiku ma lu ma xaw a gëdd ne ma waaw bi nag càmmoñ ngay jëfandikoo ma xam ne loolu ko naqari nee na ma daal di jëf jël ndeyjoor bi jële ko ca ci misaal loolu kon mooy gàttal gi mooy kon ndeyjooru lépp ndeyjoor la ko defee nekk noonu itam lépp lu muy def. fi ne da ciy jiital yéene Sëñ Tuubaa li ma wax ni positif la ko yàlla joxoon boo xam ne monsieur a gis ko amee noonu lépp lu def faw mu teewlu yéene def ko ngir yàlla kese waaye du ca du ca du ko def ngir leneen fi mu ne nekk noonu it noonu la amewoon warma ci yàlla subhaanahu wa taala noonu la joxewoon cër yàlla jox ko joo xam ne monsieur Fouta gis ku ne joxe cër yàlla. Cheikh nett na ne am na ku ma sa àndal rek. ko xamni ni doon wax and ak señ bi neena bi nee ba jub ben señ bi ne ko noppil wàññil sa kaddu ndax bi al ay kaamilu ño fi ne wala kaamilu alquran mo fi ne man ah, joy joy worma ma sifu de gis ju ni mel it daana am kaf yum mu waye kafam fi ne bokut ak suni kaf kafam moy fi ne ben be ay naari ganal mas na faa nga ñetti naar mu jox leen juróom-ñaari augiya augiya boobu jamono yi am na am na am na am na xaalis la xaalis la boo xam ne am na xiima daal waaye mu wax leen ne ndax ma sedd leen ko séddaleb yàlla wala ma séddal leen ko sama séddaleb bopp gaa yi ne gaa yi jàpp ne séddaleb yàlla mooy gën a doon nee ñu ne nañ ko séddale séddale na ko séddaleb yàlla nee na mu jël bu ma juumut juróom yi jox kenn jël ñaari jox jox jox jox keneen ka ca des ko jox dara nee na yàlla noonu lay séddale day jox kii lu bari jox kii lu xaw a yem kee mu bañ ko jox dara gaa yi nag xam ne loolu xam nga du séddale bu kii ginnaaw ba nag mu doog leen a jox kenn ku ne bu ñoom ñëpp ñu matal juróom-ñaar yi am na benn ay bu ma sa ñëw ci moom ne ko ataytu min indil xayyati maanaa waa ji dafa déggul arab xëy ab naar la waaye taxul mu dégg arab lool xayati mooy jaan xay mooy mooy mooy mooy quartier ab quartier mu ne ko nag maa ngi jógee ci xayati suñ suñ sëñ bi ne ko xanaa alxalim maanaam day jaan ju ju ju xanaa waaye dafa ñëw ne ko maa ngi bëggoon koo xam maa ngi jógee ci quartier bi ne ko maa ngi jógee ci jaan ja sëñ bi ne ko xanaa kon day jaan ju lewet moo tax nga mën faa jógee jàmm yooyu rek moo nekkoon ay ay ay kafam kaf café ni comme ni ñu ko defee nii moom am po bu mos ci wax dara li ñuy nettali xaw ma wér na am déet ne ma sañ ko indil xale xale bi sëñ bi di ko ñaanal mu jàpp ci sikkirum sëñ bi waaye sëñ bi dafa xam ne kii de bu gisoon kum foowal dana foo ak moom waaye man nag dama fowut fóoluwuma itam loolu moo doon aw dund ne mos la def lenn lu ñu itam am po des na itam waxtaan wi des na incha allah danañ ko ci yeneen jataay bu soobee yàlla kon loolu mooy melow Sëñ Tuubaa ku koy teewlu nii dana mujj mel yaa ngi jànloog moom te itam da nga gën a sopp incha allah ci yeneen jataay danañ ko dund wasalaamu aleykum wa wa barakaatu. audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim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 jikko dëgg-dëgg ngëm moo koy lal gëm yàlla ngëm yàlla itam balaa mat faw ndigali yàlla yii nii nga taxaw ci ndigali yàlla yooyu itam la koy rafetal dëgg-dëgg di ko taaral mooy jikko ju rafet xam nga ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa yàlla tëggu ko ci aw askan tëggu ko ci alal tëggu ko ci julli yu bari tëggu ko ci lenn lu weesu jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azim Sëriñ Tuubaa nag ngëm yàlla googu ñu wax noonu mën nañ ni moom da doon lu dëgër ci moom moom dafa gane feeñ jamono rek yàlla xiir ko def ci xolam mu bëgg yàlla bëgg gu rëy gëm yàlla itam gëm koo xam ni mu si futa gis gëm gu dëgëre noonu mom seigne touba ci mom daana wax ne seigne <coughs> bassirou neena masna mas ma wax ne ma <coughs> ma ngi sante yalla ndax day amut len lu wara war a gëm loo xam ni ba ma ba léegi gis na len luma ci wara yok wara lepp gëm gëm ko mat amna ko neena mo ma wax ko ne ko waw ba nga nekkee ci tukki ba wo fa ak ngëm wonuma bo ma fekk na ma ngëm gu mat lama ma fa yokkoo kay weesu wut nen daa sax na ma xanaa maarifa billaahi mooy gën a xam yàlla gën a àgg ci moom gën a am yaqiin ci moom ak xeeti maraati bi ak maqaamaati gaa yu baax yi waaye jëmmi ngëm moom daa dama xàmme rek yàlla defal ma ci tawféex yi ma am ci lu doy sëkk lu mat sëkk ngëm gu dëgër bër mooy yàlla yëmalewu kook dara moom sëñ bi lépp mi da ko joxoon yàlla subhaanahu wa taala dinaay wax ne moom sëñ bi boo seetloo jëflanteem ak yàlla li ñu wax boo ubudiya moo ci gën a fees mooy nekk rek dib jaam boo xam ne dafa nongu njaam gi di ko dund itam digganteem ak borom tabaaraka wa taala lépp mu jox ko yàlla waaye fi ne bala nga seet dama lu lu mu jox yàlla da ngay gis ne dama da ko xeeb joxaat ko leneen ba deseetu dara ma ne ci misaal ci wenn bayit rek mooy li wax ne lahu dahra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jismaani wa kulli bila sukli lalahu dahra niyaati mooy sama yéene yépp laa ko jox wa ilmi xam-xam bi jox naa ko ko lu ma mës a xam rek jox naa ko mooy di ko def ci li ko neex ak lim gërëm moom subhaanahu wa taala wa xidmati mboolem lu may jëf itam di ko xidma di ko def ci kaw suuf لب جهنا كوكو ممسن بان دوار وروحي سمك روح جهنا كوكو وجسماني وكل مولم دال سمك لبرك كامنا يسيا لفا وبيد ويا يجيس نيت لوم جهي فمنا يجيس نيت لول دايما دوكو خيب جهه وار لجلس بموجي دانا كدس جهن لب مرك نون لكو طبع لسانية والأوصال عبدا له به سما لام يوك سما چري يب نون لكو دون طبع دي كو جهن بان بان له ارتحالي وإليه سكني maanaam bu may samag dem ak samag delseeg samag dalak samag yëngutoog lépp jox naa ko yàlla bihi uaadi wa bihi uwaadi ku may noonu ci yàlla laa lay noonu ku may àndalit mbaa ma lay bëgg mbaa ma lay gërëmit ci yàlla laa lay bëggee moom laay ànd ak yow moom la wax ne bihi uaadi wa bihi uwaali wa huwa taala al mutaali al waali xubbiya fi llahi wa bugdi fii maanaam sama bëgg bëgg gi may bëgg nit mi ngi aji ci moom fam mu toll ci yàlla rek ak diggam ak suñu borom ak na yàlla diglee ñu bëgg kooku mooy ñëpp ku may bëgg rek dama lay bëgg ci yàlla ku may bañ dama lay bañ ci yàlla mooy la nga def benn daa naqar yàlla wala yàlla bëggu la ma bañ la ngir yàlla mi ngoog kon loolu mooy digganteem ak subha suñu borom tabaaraka ko taxala mu nekkoon ci ngëm gu mat sëkk koo xam ni dara raxu ko àggoon na ci daawut sàkku ci benn mbindéef dara moom Sëñ Tuubaa Sëñ Basiir wax na daana wax ne idaa massanii durrun aw ixtajtu ad'uhu du'aan xafiyan ba'dama leylu qad dajaa mooy su ma amee jenn yitte wala jenn aajo damay woor yàlla ñaan ko ci bu guddi gi demee ba sori ma talal sama loxo ñaan koko waye duma ñaan bindef dara maddu yadi li ghayri dil jalali indi min ad-dalali wal idlali mooy talal sama loxo ku may sun borom tabarak wa taala allah borom mag goge ne lol ak reer la ko jàppe ak reeral ka ngay ka nga koy ñaanit ka ngay sakku ci momit lol la ko jàppe ndax day ngay japp mom day mën ne man na dar ta fekk mënu dara suñ bési wax na daana wax ne sakku dara ci nguur gi loolu ak kéefar moo ko kéefar ñoo yem ci man noonu la doon doxee moom Sëñ Tuubaa ba tax na fi ne mësta tàllal loxoom ku may suñ borom tabaaraka bi nga xamee ne sëñ Mamour ànd sari jóge na fi gis ngeen ne bëggoon nañ ko booleek buur bi fi nekkoon boobee teg ko fi wetam ci li sëñ Mat Lamin Jóob da nga na nett li waaye lu mën a xaw rek xasida gam ca def waaw sa wax jooju am nay wuute ak i wax waaye li ma bëggeen rek mooy xasida gi <coughs> gam ca def dajaa feeñal bu wér ne lu dul yàlla soxlawuma ko walastu raadiya xayral ilmi wa diini lu dul xam-xam du diine gërëmuma ko ma ko doxuma ci jëm qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tuxni kulla ma xiini fa qultu ya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayral ilmi wa diini dañ ma mane kaay jàng wuti buur yii boo ko defee loo bëgg ci àdduna di ko am ma ne leen man kat yàlla doy na ma te doyloo naa ko te lu dul xam-xam ak ak ak ak ak diine soxlawu ma ko bëgguma ko gis nga dafa wax ne ana u fawidu ana u fawidu axwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajsal masakini gaa ñi nga xam ne ñoo gën a lott miskin yëpp nga xam ne mënuñu dara ñoom buur yooyu noonu ñuy wax nan laa jël sama mbir yëpp di ko wér ci ñoom xalaatuma ko in kuntu daa xasanin aw kuntu daa watarin in kuntu daa watarin aw kuntu daa xasanin daawtu dal ayni qabla rai wa siini su ma amee jenn aajo wala ma am lenn lu ma jaaxal wala lenn ñàqare damay woo boroma arash mooy subhaanahu wa taala yàlla subhaanahu wa taala loolu juróoloon na ko ci njëlbeem ñëpp jàpp ne xel mi dama yàlla dafa neexut gis nga moom sax wax na ne qaalu safihun li sarfi anhumu basari wa ragbati an dawi al isyaani fi al bashari mooy ñoom ñëpp maase nañ ci ne man sama xel neexut andu ak sama sago wala sama xel neexut te li ko waral mooy li sarfi anhumu basari mooy sama bët laa tegul ci ñoom ak lañ am ñoom nit ñi sama xemem def bépp mooy suñu borom tabaaraka wa taala kon foofu la nekkoon ci gëm yàlla ak bëgg ko bu dee jëfe ndigal yàlla itam de su ci gis moroomam ak kemam ndax mooy jëmm joo xam ni mësula tiim ci dundam lu yéemoo ngi noonu jëmm joo xam ne mësula tiimal tiim julli benn yoon sëñ Basiru nee na benn yoon la ma tiim te wax nañ ne ba mu amee ndox da ko fay loola la ko waraloon mooy booba dafa am fuñ ñu doon dem jëru dugg ci net ba waaye ba ñuy dem kam joxoon satalaam kooka sëñ bi xam naa doxub sëñ bi daa gaaw ba sëñ bi jiitoo ko lu bari ba mujj ñu réeroo ci yoon wi bi waxtu jotee sëñ bi wër dëpp wër wër wër wër gisul waa ji mu dal di tiim ba mu demee ba waxtu wi nar a jàll mën a tiim julli keroog la mujje dénkaane ak satalaam fu muy dem moo yoral boppam ak satalaam te li doyoon mooy moom yàllaa ko nattoo woon jëmm ji léeg day bari ay ay wéradi yu metti yu ko sonal rawatina ay xeeti taab wala wala yu demee waaye sëñ Basiru nee na teewul faw danaa loxo bi wala ci jëmm ji nee na mas bu mas masaa am ab gaañu gaañu ba mu takk ko nii nga xam lislaam may na la nga masaa ci kaw gaañu gaañu bi ci kaw di nga takk ci moom ci kaw gaañu gaañu bi waaye moom loolu mësu koo jëfandikoo. fu japp jotté day tek lam takkon ci ci ci ci ci gombo wala ci tab ga diko raxas raxas yo xamni seigne sëñ neen bokuma sa boo fekk da ngay japp ne loxo bi da da saxul ci jëm ji nga da koy bomb dara ji di touru and ak deut ji mu diko wax nang ko yow ya xam bu la nexé nga deretal bu la nexé nga bañ deretal man lu mën xew jaam la bu yalla digal ma bomb la nan lay waxee nan lay wax ak jëm ji ak ak ak cër bi la melone <coughs> bu dee cim njàpp itam wax nañ ne mooy jëmm joo xam ne mësta tàggale ko akum njàpp mësta julli itam ñaari julli ci benn jàpp parce que tisbaar ak nga jullee ko benn jàpp loolu mësu def ci dundam moom sëñ Tuubaa sëñ Basiru nee na daana wax ne man duma jëfandikoo ay seel du seeli diine du seeli aada nee na seeli diine mooy menn njàpp nga julli ci ñaari julli farata moom mësu ko def ci dundam lu yéemoo ngi noonu bu ma saa nodd lu ko wéra di tënk-tënk du tee mu jug julli ji mës a déggu nodd te néew néewut bërit dem wuy ji sëñ mët la mu ñëw dagara nettali na ca gànnaar jamono joo xam ni nee na booba wéradi gu méttee ko dal goo xam ni sax dañuy wax ne booba day lu naroon a dal ci mbindeef yi balaa musiba boo xam ne yàlla da ko wàcc ci mbindeef yi mu gis ko yalla wan ko ko mu ñaan yalla yalla tek ko ko te bay nit ñi ba ko yàlla tegee mu ag ci wéradi ga ag ci de nga metti metti woo xamni mujj na ta yëngal ben cër waye teewul fu ñu nodde rek dana bërit wuy ji julli ji ci jakk ja neena bu mujj neena dañoo mujj eh, maanaam waxtaan ñoom yam nekkaloon ne nañ baña nodd ci kaw bu nodd gi jotee ñu wax nodd ko ndànk julli ba noppi nag doog koo yëgal ne ko waxtu jot na ndax nii mu mel daal daal wax dëgg yàlla dañ ko war a yërëm ci ni jug beeg ak ñëw beeg julli si gi foofu la nekkoon bu dee wàllu julli itam mooy jëmm joo xam ni mësta julli ci digg waxtu waxuma la ak mujj waxtu waxuma la nga faar julli moom mësu ko def ci dundam digg waxtu yi mësu fee julli moom fujju fujju lu jotté ci njëlbéenu waxtu wala julli ki ñu wax Cheikh Abdul Wadud ibnu Sidi Abdal seigne Basiir wax na ne euh, al da ko tudé al alim sunni ku fonk sunna la mom seigne bobu nee na sëñ Basiir nee na kooku moo net mo net li ne mas naa nekk ak seigne bi dir bo xam dañu dañoo dir bu yag way né daa sétlu fujju lu jotté rek lum tang tang bu dé beccëk dengan berat, fu ñu noddee rek fa saasa li daal bëgg julli ben bis ma ko tisbar ji mëno ko bayyi ba bam xawa xaw a sedd tuuti ndax daal nak ndax tisbar yaatu na waxtaan bi ne ma inni uridu an afala inda al amri bir mune fani fañ mako ko laku rek la ko bëgg daal defe bëgguma caa tek ben di xaar dara motax moy ko xamni musta julli itam ci luddul mbolo fu mëna nek bam dess diir bi nga xam ne tubaab yee ko tënk ci bërëb yoo xam ne nekku fa kenn benn jullit bu dee ci bërëbam yi itam yëpp moo daa jiite ba ci gaaw bi ko fi ñaari fan maanaam ba ba mu wujjee boroom subhaanahu wa taala ci ñaari fukki fan ci baraxlu ca gaaw ba nga xam ne maanaam diiru muy man lépp mi ngi julli si ba ci gaaw bi ca fajar la mujj julli si da nga am dibéer altine moy ju borom subhanahu wa taala moy jëm jo xamni tam itam mësta nelaw guddi guddi gep da ko da dundal itam fimu ne fimu tamale tàmbalee guddi gi mo bu timis jotee fene bu timis masaa jot bu julé timis dan sëñ Basiru neen daana julli fofu ñaar rakka yo xamni li ci ëpp baqara la ci tari ak Ali Imran mooy juróom Nyari yisi bag nisim ci ñi naafila gogo sëñ Basir wax na itam ne uh, ñaar fukki atam yi mujj li ëpp ci li muy def guddi mooy jàng alxuraan ak bind njëkk lool nag ñaar fukki at ya ya ya ya ya, ya, ya, ya jiitu moom li ëpp lu mu daa def mooy julli guddi gi da koy julli ak di tudd yàlla guddi gi nee na saa yoo masa jug guddi <coughs> xool néegam da ngay dégg kàddoom muy jàng wala nga seen làmpam muy leer ku masaa woo itam lu guddi guddi boo ñëwee wuusi ko di di gëmmantu nii day wax ne subhaana man laa taaxuduhu sinatun wala naw tudd yàlla day def da ko yéem loolu nelaw yi sëñ sëñ Abdulaay daana wax ne nelaw guddi ak wut waxtu tëdd ginnaawam lañ ko xam diir ba mu fi ne guddi gi daanaka mag ñi kenn dawu tëdd ndax waxtu ne mën na laa woo te bu la wooyee doo bëgg mu fekk la ci ay ngëmmentu ak ciy nelaw guddi gi tam lu jep ci la dem ci armelia ya. ni ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam da defee nek nonu motax musta am neegu teud neeg bo xani ni def ni nga xande am neegu bo xani dang ko defar ngir bu teud jotey nga dem fa teud di xaar nelaw yi ñew ngay wëlbatikoo wëlbatikuwaat ngir xaar nelaw yi agsi loolu mësu ko am mom lim daa noppaloo ko si wax nañ ne fi mu toog la koy defee ni te nan gamu noonu rek waxtu wi ñuy waaj tëdd ni dañ ko seet mu ne gàmm ni mel luy xaw a géej ci biir waxtaan wala yu ñu deme waaye bu jeexee jeex na guddi gi da koy da koy da koy dundal noonu la meloon itam ci koor ak ak maanaam ak lekkam mel ne bëriwutoon suñ bisur daana wax ne daanaka daana yatt bi war a yaam daana toog ay fan yu bari ak ay bis yu bari te dara du dugg gémmiñam du lekk du naan fi mu ne dadaa woor daanaka diir jamono jëpp ba mu des yenati fan yu ñu aaye ko ko woor te ak lekkam bu demee bay lekk fi ne masalan dafa am yoo xam da ko aaye woon ci boppam da ko aay da ko da ko da ko jaayante woon ak yàlla aaye ko boppam nga xam du ko jëfandikoo bokk na ca ñaar ñaar yu neex lu mel ne tey suukar ak soow mosu leen boole xewlu wala sukar ak café wala sukar ak atay xeer yu mel lim da xewlu itam nga xam moy moy lek gu naqari googu ñu wax na nga xam ci def dara la xop xonj wala yu demee wala yene deme suñ beusene bu ci noppé da nga japp ne ab xalé mo doon rëdd ay baram ci kibi rek day dara du ci juk <sighs> mi ngoog mu waxuma laa nag jëfandikoo lu leunt mbaa lu lewut loolu mo musu ko def waxtu ni tam ngi ci tuddu yalla waxtu ne mi ngi ci tudd yàlla kon loolu mooy gàttal gi mu jëm joo xam ne mësta wax lu ñaaw mësu koo def mësta wax nit it lu ko naqari du ci teewam du ci ñàkk teew ay jikkoom itam foofu lañu ko tàmbalee kon ci waxtaan wi di ñëw incha allah noo ngi jégalu ñëpp di ñaan yàlla mu defal nu ak roy ak topp ci mboolem li ñu fi wax lépp. ci daraja Cheikh Ahmadou Bamba wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlaana muhammad ibni abdillah وعلى اله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مكيني سيطان يب نغلين دي دلو دلن نيو دلن سيارة دلن دوكيل تيوير وسلويني دي أمبك تيتم تي أندا تغيين تي سين جتاي بي تدو يون وي نتي لابيرنت رك ci li nga xam ne moom la ñu seq muy dox bii nuy dox jëm ci yàlla subhaanahu wa taala xam ngeen ne <clears throat> noo ngi doon waxtaane melaw sëriñ Tuubaa wa ak dundinam ak jikkoom ngir mu mën a nekk ab yóbbal ci sunu xel boo xam dañ koy bàyyee xel ngir mu mën noo may ak cofeel ci sëriñ bi xëy na noo ngi ci waaj a guddal waaye dañ koy mottale rek jikkoy sëriñ tubaa sëriñ tubaa yàlla ko defal jikkoy yonente bi aleyhi salaatu wa salaam la amee woon ni ko sëñ Moussa Ka waxe mboolem lum lum gis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam làmboo ko ci jikko jihaad na ca ba am ca lu kawe njort <coughs> yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko misaal ci alxuraan ne ko yow day yoroo xol bu bu dëgër yoroo jikko ju bon kuy jéggale nga ku mën a war na mer nga ku mën a jëflanteeg doomu aadama la walaw kunta faddan galida al qalbi lan faddu min xawlik faafu anhum Sëñ Tuubaa itam loolee noonee la ko doon na ci yonte bi mooy jikko yooyu wax ne kazamtu anfaqtu kama afawtu qablu mujahidan wa ma jafawtu kadamtu mooy wann naa sama mer mooy dara naqariwu ma Sëñ mooy koo xam ne dara naqariwu ko lu waaye def neex na ko maanaam lépp lu yàlla def rek boog laa bëgg a wax neex na ko boo seetloo dinay nett li fi mu ne ba ci néegam yi nga xam ne moom la amee woon yàlla ko daan nattoo léeg-léeg ay fel dafay bari fees dell néeg bi di ko matt moom ci jëmmam itam waaye musta nangoo rey wenn fel dañ nett li wax ne benn naar bu ma sa toog moom ci benn néeg naar bi gis fel yi di ko matt moom sëñ bi ba sam ko ba ca bi ba ca kaw bopp ba ñëpp seen ko moom fi mu toog mënta toog ngir metti matti fel yi waaye sëñ bi yëngu sax defu ko nee ma nar bi muju mel ne xaal da ko dikkal mbir ma jaaxal ko mu ne ko waaw ya sheikhu ma hadha waa lii lu ak wilaya la wala da nga yegut li ne mat wara det waaye sëñ bi da tegalu ko ci lumay ne ko tarbiyatul hayy alladhi laysa yamut laysa ka tarbiyati xayin qad yamut li yarab sun borom tabaraka taala yalla ma yare ni ba dara naqri ma li ma naqri dama koy tiye wan na anfaqtu mooy lu mos yorit def def na ko ci yoon yàlla misaal gi mooy sëñ nat nettali na benn waay boo xam ne da ko daa sàmmal moom sàmm boobu yor jurug sëñ bi di ko sàmm ay xare ki béy ki yëf benn bi sàmm boobu dem am kum joteel ba dóor ko ab xale bi xale bi ñëwee kalaame ko sëñ bi sëñ bi wax sàmm ba ne ko mboolem la nga yoroon cig jur jox ko waa ji ñu may ko ko yow nga bàyyi sàmm bi ginnaaw dangay ngay tooñ wala boog da ngay da ngay da ngay da ngay da <laughs> tooñ daal loolu ak tab foofu la mën a yem mooy mbooleem li nga am ci gétt nga mayandoo ko benn benn xale wala benn waay ngir ne sa ki doon sàmmal da ko da ko da tooñ loolu rek misaal la afawtu mooy jéggale gi nga xam ne moom la jéggale mën nañ ko misaal diggam ak tubaab yi tubaab yi dañoo tooñ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wax na leen ba tey ne leen yéen da yéen maa ne xam na ne liñ jëflante Sëñ Tuubaa itam dara lu ci tegu ci yoon amut Sëñ Tuubaa wax na leen ne leen zalamtumul abda alladi laa yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim mooy tooñ ngeen jaam boo xam ni dadul fayu ngir boppam rek moo leen musal ci moom dadul ngir boppam moo tax ngeen ngeen di ko tooñ waaye zalamtumul abda alladi laa yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim qad axrajuuhu qad akhrajuhu min biladihi bila haqqin genn ngeen ko am rewam señ bi te dara sababu ko moy toñu len defu len dara wa jahada wa qaasahul lu ne mu daj ko ci genn ngeen ko genné li wajhi man anhu afa ankum afa ba'da jihadin wa balain du'ifa moy ngir yalla nak jëm yalla rek motax mu jéggal len waye loolu daj na ko ci génne giñ ko génne gis ngeen sëñ Tuubaa bi sëñ Maamar Anta Sali jógee xam ngeen ne teguñ ca fukki at lañ ca teg ak tuuti mu nekkoon fale Mbàkke Bawol Mbàkke eh, fale Mbàkke Kajoor xam nga tuuti la ca teg at ak nangam rek ñëw fii Mbàkke Bawol bi mu jógee Mbàkke Bawol xam nga ñëw Daaru Salaam sanc ko ginnaaw bi la sanc Tuubaa ginnaaw bi la fi jógee dem Mbàkke Bari foofee la ko tubaab yi jàppe yóbbu ko Gabon juróom-ñaari at ak lu topp te ñoom tubaab yi ci moom bi ñu koy àtte wax nañ ne ko yow defoonu dara waaye nag dañ lay jàpp defoo dara waaye teewul du teen jàpp la maanaam googu tooñ ma siiwu ko gis ci kaw suuf booba xëy na jamono daa tollu fii droit de l'homme yooyu amul waaye tooñ moom foofu la mën a yem yemul ci loolu bi mu dellusee ci réew mi ay weer la fi def juróom benn weer gën ja bari ñu jëlaat ko yóbbu gànnaar gànnaar def na fa ñeenti at yoo xam ni Cheikh Sidiye ci moom moo mujj bind leetar tubaab yi wax leen na leen nañ ko dimbali mu dellu réewam ndax réew mi climat bi moo baaxut ci moom waxtu na ci wéradi la ne ak ku jagati ki ndax climat bu bon. bi mu ñëwee fii itam indiwuñ ko ci fii fii dëkkam bi dañ ko yóbbu fële ca Jolof fi ñuy wax Ceen foofu mu nekk fa juróomi at ñu jëlee ko fi yóbbu ko fii ci Mbakke fii ci Njaareem. fukki at ak juróom yoo xam ne résidence surveillée la nekk nga xam ne muy ñu ko sax mu dikk fii ci Touba te Touba mooy dëkk bi nga xam ne moo ko gënal ci dëkk yi fii la bëggoon a nekk mësuñu koo may mu dikk fi loolu mooy tooñ gi gën a rey mbokk mbokkam mi mbokk lépp nelaw na fi mayuñu ko sax ci li ñu wax am nañu wax ne mayuñu ko sax mu dem ca denc ba kon tooñ moom foofu la mën a yem teewul nak mu jéggal leen lool moy la ci yému mom Sëñ Tuubaa jéggal go xam wana wax xol bu sedd guy la ko défé afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u wala fen fu wax afawtu li wajhi llahi ma safwi kalkali moy xol bu sedd sedd guy sedd wecc ndax nit ki dana jéggale teewul mu ànd ak ñag naggi xol nee ñag ñàgg-ñàgg sax am na mangom dama leena a jéggal ngir yàlla motax mu da wax ne lam yakhfa inda kulli xaasidin xasad kawniya taahiral fuaadi wal jasad ñi nga xam ne dañoo dañoo iñaan dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo iñaan sax nag lu ñu iñaan iñaan muy noonu yàlla yooyu ñoom téewul ñu xam ne man xol bu set la am xol bu laab ak yaram wu set itam taahiral fuaadi wal ndax yan wi fuaadil xayra والف... يذكر اللسان ينوي فؤاد الخير يذكر اللسان ويعبد البدن ربي بالحسان sama xol waxtu wu ne lu baax rek lay yéene sama làmmiñ ci tudd yàlla rek lay ne sama yaram it jaamu yàlla rek lay def mooy lu bon moom xamu xamul jëmm jooje buñ seetloo itam am na yoo xam ne noonu murid yi buñ koy nettali dañ koy jàppee xar baax masalan xar baax sax la waaye duñ seetlu tooñ gi ci ne kon tubaab yi jéggal gi leen sëñ bi jéggal bala nga koo xam da ngay xam do dayob tooñ biñ ko biñ ko tooñ ci misaal si sëñ Mawlaaya Bousso waaye mi mu def ci sëñ bi da gis mu wax ne wax ne aaddu lahu laysan dariyan li fatkihi fadaana lahu wastaada shaxsal mukaabidi mooy dañ ko waajalal gaynde goo xam ni fàdd rekk mooy mooy mooy mooy mooy mbiram maa jëmm ji loolu mucc ga mucc gaynde ga leen leen rek moom lañuy ñuy seet waaye dara gënu ko yéemu ci tooñ masala nit ki nga maanaam ak ak mbañeer ak soxor foofu la yem gaynde nga jël nit dugal ko ci ab parc ay gaynde ngir gaynde yi lekk ko nga xam yàlla ko ci musal ak li wax ne wa alqahu fi biirin ka qabrin li dayqihi fa saara lahu baytan uidda li maajidi moy moy ab ten bu lëndëm këriis ñu jël ko tabal ko ci ngir sank ko bëggoon mu faatu ata bi kilaamit mubtaghin mahwa xattihi fa bin nar masul kawaghid moy jël ay xaj yo xamni dañu soxor nga jël ko ci kaw xeer yoy yep yaangi deg agit de nga lu melni ci gal gi loola ci xaw muy wenn nak woo xamni dañ ko ubbi fam nekkon bayal ko mu dem ci kaw ngir mu mbeuk ko ñu tok di seetaan masal xeeti jëf yooyu jëfi ak soxar ak togn fofu lu mëne nga xam sëñ bi jikkom ju rafet fofu nga ko xamé téwul mu jéggal leen ngir yalla ngir yalla topul leen dara moo jikko señ tuba <coughs> buñ ko doon wax ni du jeex moom ku rafetoon jikko la fi mu ne nim daa maslaaye ak ñi nga xam ne ñooy ñi néew doole loolu fekk ko ci ak ñi nga xam ne ñoo am doole buur yeeg yooyu mësuta maslaa ak ñoom waaw wax nañ ne xale bu ndaw rek bu déggee muy jooy ci ci ci ci kër gi mooy njëkk ni bërit ngir xeetali ko jikko ak ak ngir laaj lan lay jooy loolu Cheikh Sidi Ahmadou Disso moo ko nettali sëñ Moussa Ka nag moo tënk mbooleem <clears throat> ay jikkoom nga xam ne damay jaar ci nam ko waxee waxin waxanik dara gënu ko rafet dara gënu ko jekk mu ne su dee waxee lu gën a jub ci jikkoy sëñ Tuubaa dafa wax ne baam baa ngi waa waaju xamul na digloo te roy roylu jikkoom moo xam boromam di jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ te ku ko tooñ mu jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boromam di di faj aajoo ka xam lay mbóot di seexal di génneeg roo ci tuskare jox boroomam du moy ngir tiit du puukare mbig lu rëy rëy lu mbir rëy rëy du ko puukare du bëgg du bañ du faale lu dul boromam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yónneen te mësta tawat lu xew ci ku dul boromam du daw ay noon du yox-yoxi ngir pexem nit du sa du sukkandikoo ci mbamb mooy ay jafe-jafe ku dul boromam lu mbir rëy rëy da koy far lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak ngëm du yoqi du daw di mbër mu far ak boromam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàllaam du tiis ba mu tax mu wor faratay boromam du digg dégg ak nodd mbaa kàbbar te teewul lu taw taw ak lu liw lew ngir boromam du deg ak noddu mbab kabar te teewul lu taw taw ak lu liw lew ngir boromam du tab jaba tim du wute du wute du tab jaba tim. tim tim ngir julli dedet du wute mo musula julle itam di wute jullik mbolo dedet du tab jaba tim du wute di mamu du gapparu bis du julil boromam du ñàkk ba tax mu bot di kuréel yaa koy laaj du denc alal lu may téere boroomam du dox di tëjoo ki dëkkaaleem ci ay kër bu weetaa ma ngi ca yónneen ma ngi ca yónneen mbaa boroomam du dox di nelaw ci ay lal guddi cëy kii du lekk ba rekk day mos ngir boroomam yërëm na naw ndaw yërëm naw ndaw xamal leen yoonu baatin teral naw mag ba jébbal leen boroomam te taal na ci réew mi taal bu dul fay ci duniyaa monsieur futa gis kemam ciy moog boroomam dër ba ne këng nooy ba ne nemm ci wet te am njàmbaar gu tar te ragal boroomam woyof ba ne toy diis ba ne gann ci wet lawet ba ne domm saf sàpp ak boroomam sawar te lewut te yaatu te xir te am ngor di tab bu dul jeel lum am jox boroomam rafet jëf saf xoram du waxaata réewul bari teggin ci kum gis ngir boroomam du xejj ak seen du ay mbokkam du jàmbur ku ñëw mu teral digal la nga xam boroomam du boddi du ñaax du jànni du xotti saatir dalay yaatal ëfal la nga mel ni doomam du màtte du jëw du jànni du rog du siisit du rummi du mer du xool ci lu dul boroomam du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo du dog war maaki mbokkam mbaa boroomam du fàtte du fecc wëlëre mësta wor nit du xaddi du naagu yërmande ngir boromam du bew du bajant day waaree waaru du jekk ba fëkki maasam ngir boromam du reetaan nit du farfarloo du tas nit du yàqab der du tas nit ngir boromam ndaxam ji waaye ji koy yónneen la làmboo mënee futalim ngëneelam yéeg boromam loolu mooy gàttalu jikko sëriñ Tuubaa muy jëmm joo xam ni léppam ci jàmm la tege <clears throat> mënees na mënees naa wax ne jàmm la woon ju doon dox ci kaw suuf yërmaande yàlla la ju ndox ci kaw suuf tubaab yi ni la ci gëna a ci seen digënd ñom moy, ci digënde ak tubaab yi moy kërok bi ñuy wisit si këram gi ci darul manan def ay soldat yu ñëw di wisit kër ga ci bis bobu la talif khassidam gi mu rahman rahim ci bir khassida gi muy ñaan yalla ne ko rahmanu hab li jamiil xalqi rahmatan man yughni ani shar sunu borom ma ngi lay ñaan nga yërëm mbindeef yëpp te mbindeef yi tubaab yaa ci seen bir yi ci bir ñim doon ñaaral la bok hab jami'il khalqi rahmatan man yoxni an shar ya malikal mulki ya man jalla an قود irham jami'al wara يرمل min def ييب تواب ye ñep ma ngi ñaan nga defal leen yermane lolu ya man jalla an qawadin moy yow da nga upp di fayanto yow sun borom fofu dina koy wax waye yermane yermane ju mel non ma ko gess mooy da mooy dafa wax ne suñ boroom ci gàttal rek xam ngeen ne ci misaal dinaa misaal ni fi ne ma ma tëkku la ne la dinaa la dóor dinaa la def nangam ak nangam ginnaaw ba ma jéggal la bañ laa def loole loolu ak mbaax la li nga xam ne sikk la kay mooy ma dig la ne dinaa la jox nangam bañ a def loole ma la digoon loolu moom sikk la. dafa fee nag la sëñ bi wax ak wax ak sëñ mooy jël la am xawadin mooy yow manam ya gëna bax ñëpp motax li nga tëkku minde fi ni jéggal leen bañ leen top amna am na feneen foo xam gis nga day wax day wax mom julli ñi sax la fa taxawal mom señ tuba waye gis nga day wax sun borom ne ko fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad moy, liñ lay ni nii ak doom adam rek moko waral waaye boolewuñ la dara na nga leen jéggal wa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika musiba yi tam ak balaay yi nga leen teggil nuñ ko na nga leen ko teggal ñom nit ni seigne tubaab moy ki ëpp yërmande ci kaw suuf gis nga bi mi ñaan dafa ñaan suñu borom ne ko yeesal gi ma yeesal dina na lepp teggu ci jamm bila idan aw alami wa bi jëddi di sabil bila aidan aw alami bi di bila bukay sama njabot gi nañu jub te bu kenn joy wala lenn luy metti luy aw mettit bu mu tegu ci kaw kenn gis nga itam noonu la daa ñaanale ñi ko topp ak ñi ko topp dana wax suñu borom ne ko ijaal xayaati nafa ahli zamani maanaa mboolem ñi ma taseel jamono na nga nekk na nga def sama dund muy muy xéewal ak jàmm ci ñoom wal tak fi nii ada jamin alamin wal tak fiim adaya mooy sama lor nag ma defal ba du ma mën a lor kenn ci kaw so moom mësta rey sax jiit mom seigne touba yalla yalla taas ci barkem lolu mooy ay jikkoom no ngi djeglu yi ci top inshallah dinañ ñewat nak ci geneen anam moy li seigne bi diglé nak nun talibé yi ni li nga xamné ne la seigne bi doon digle fan lañ ci tollu ndax itam waxtaan seigne bi neexna waye itam nan lañu def ba jarñu seigne bi mo gis na dara ëpp ko solo moy légui li seigne bi doon digle nak yoyé mu doon digle murid bi lan lan la seigne bi wax ne murit mom la wara jëkke ak lan la war ci war a teg ak lan moo ca topp ba keroog dox bi jeex ci yoon wi loolee nag murit boo ma boo de murit noo ca toll rek fi ne foofu noonu loolu mooy mooy définir sa tolluwaay ci yoon wi sëñ bi jaax da sëñ bi jaax da wax ne bul jaay sa bopp bu ko nax xamal ni kat deefu la jox lu dul li ngay jëf ak a wax ak dëgg rek a am xorom bul bëgg a saxle loo jiwul ngir bëgg saxle loo jiwul am xel mu gàtt la wutal ak njëg te jënde ay ngërëm kuy mooy te bëgg aljana loolee mu bëgg jomb na loo xam ne nii nag jomb na ab dofa koy bëgg ndaxam doxoo te bëgg a raw ku ne jëfoo te bëgg a am lu ne sonnoo te bëgg a gën ku ne du mën a am nanga nga ko xam te yàlla kat mën na lu ne am ñoo xam ne dañoo xam yàlla moom mën na lu ne mën na noo dugal àjjana ne te yàlla kat mën na lu ne waaye du tax mu def lu ne ngir sak neub dekk fu ne wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit soobu ngiram te taxawul dana ca dem yalla li le dik dogalam te ken du dindi ab dogalam aljana ak top ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari beurep yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram <clears throat> wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa wa anna مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تتقون